seydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sabari diwaan wa tamkin euh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weer wu tedd wu mag wi nga xam ne ñoo ngi ci mujjantal gi ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa li nga xam ne digg na ko ci njëlbeen gi ak ci digg beeg mujj gi yëpp ci ak njëgal yàlla na ñu ko sunu borom defal lépp loo xam ne dal nañu ci ay raq-raq yàlla ñu ko sunu boroom jéggal te bindal ñu ko ay tuyaaba kon mbokk julli dinañ ko xamee rek euh, muassasatul Wafa bi huquqil iman euh, diiru boor weeru koor wi yëpp ñu tànn kenn ci mbokk yi boroom xam-xam yi indi leen ñu jàngatal nu tomb boo xam ne bu ñu ko jàng bu ñu ko jàngee mën nañ cee jariñu ñun jullit ñëpp tey nag euh, ni ñu ko xamee ñu am gan gu tedd gu am solo goo xam ne gii mi ngi jóge ba kawlax te jàpp nañ ne barab bii mu ñëw itam ci ay barabam la bokk ndax foofee mu jóge ak fii benn barab rekk la ci barabi diine yi kon tey mbokk yi ñu ngi dalal mbokk mu ñuy wax sëriñ Seex bay sëriñ Seex Baay Ñas jàpp nañ ne sax mbokk yi ñu ci bari xam naa ne xam nañ ko wala dégg nañ ko ndax gis nañ ay yënguwum ci wàllu tasaare xam-xam rawatina xam-xamu diine ci anam goo xam ne anam gu leer lay doon kon mbokk moom ñu dalal tey mooy sëriñ Cheikh Baye Niass mu jóge ba dina Baye ni ñu ko xamee itam nag euh, mbokki doomi soxna yi fi ñu fi ñu leen baax baaxoo jaarale moom sëriñ bii foofu lañ ko jaarale mooy li jiitu ci dënn yi muy alquranul karim kon sëriñ Cheikh Baye Niass mi ngi jàng alquranul karim ci dëkk boobu mu fekk baax muy Medina Baye foofee la jànge xam-xam foofee la jànge alquranul karim jànge fa itam xam-xamu diini yi ni ñu ko baaxoo jànge ci pénc yi lislaam yi ak mbooleem xam-xamu sharia foofee nag mën nañu wax nit fa la tàmbalee jànge ci njàngum école ci école boobu nekk dina Baye ba am ñaari diplôme yi muy diplôme shahada al ibtidaiya wal ihdadiya ci mu am ko nag ci arabe ak ci français euh, ginnaaw ba nag euh, mu gën a continuer rek ngir yokk xam-xamam ci la demee ci al mamlaka al maghribi fi al mamlaka al maghribiya ci benn euh, kulliya kulliyat uh, Muhammadul Xaamis foofee la jànge ba am baccalauréat waaye bi ma amee baccalauréat it yëmut foofa dafa continuer waat rek di si war njàngam ci kulliyatu hadis ba yàlla suñu borom defal ko ci diplôme yi nga xam ne moom la soxla woo ci wàllu njàng yëpp uh, ba fi ne ñuy wax ak yéen mi ngi continuer am njàngam ak ak gëstuum ci Mali Malaisie ni ngeen ko xamee foofee lay continuer am njàngam ci wàllu ingénieur ci wàllu petrol maanaam jàng ci wàllu euh, xam-xamu pétrole xam-xam boo comme moo xam ne ci suuf lay jóge ba fi ni ñuy wax ak yéen ci gëstu ci xam-xam yooyu ci la nekk di ci gëstu ba fi mu toll nii mi ngi ci loolu kon mbokk moomu ci gàttal rek ci jaar-jaaroom rek niñ ko xamee itam ku ku yittewoo xam-xam la di ko tasaare ak di ko jàngale waxtu wu ne ba gis nañ ni sax yaakaar naa barab yu bari ñu bari li ma wax léegi ci njëlbeen gi miin nañ ko ci anam yi ñuy jumtukaayu jamono yi ñuy tasaare xam gis nañ ci ay yëngoom bu baax a baax nu muy leeral xam-xam ci wàllu diine kon mbokk moomu tey moom la ñu war a dalal insha allah taala bi muy ñëw nag mi ngi ànd ak sëriñ maam seex Mbacke moo ko indi sëriñ maam seex defe naa ne duñ ko présenté fii ci Darou mooti ndax nëgën daaw rek jaar na fii indi fi waxtaan woo am solo woo xam ne defoon na ko fi sëriñ maam seex moom moo jiitee mbootaay googu ñuy wax AIS nga xam ne mooy jamiya islamiya li xidmati tasawuf yaakaar naa xam nañ ñoom tam seen yëngu bu baax ci wàllu réew mi ci diini ji kon sëriñ maam Cheikh Mbacke moomu moom la àndal sëriñ maam seex moomu it ànd ak ay mbokk yoo xam ne yi ñoom it jaaroon nañ fi ànd ak ñoom ku ñuy wax euh, mbokk mii def waxtaanu ci la bokk moo ko indi muy sëriñ seex Baye Niass ak sëriñ Babacar Cissé bu jaamal moom sama xarit la bokkoon nañ daara ak moom. sëriñ Abdou Hassis Touré ci la bokk ci délégation bi sëriñ Mourtala Rafa yi sopp sëriñ Rafa ci la bokk sëriñ xay Haydara Diop xam nañ ko fii ci Darou Mouhty la dëkk sëriñ si la taalib moom itam ci délégation boobu la ko kon daal sëriñ Cheikh Baye Niass bi muy ñëw délégation boobu la àndal muy maam Cheikh sëriñ maam Cheikh Mbacke jiite leen moom sëriñ Xaadim Awa Ba mi ngeen xam mi nga xam ne moom it moo jiite mbootaay gu mag googu nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu diine di liggéeyal tasawuf di liggéeyal lislaam ji bu baax a baax kon daal mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi ngeen teew fii nga xam ne seen barab la kon ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban fii madinati daarul muti kon sëriñ Cheikh Baye Niass ñu ngi ñaan suñu borom li nga nar indi suñu borom defal la ci feex ba anam gi nga koy indee mbokk jullit yëpp mën cee jariñu bu baax a baax maanaam lislaam ak yi nga xam ne mooy gàllankoor yi nga xam ne moom mooy moo ci am insha allahu taala loolu la bëgg a waxtaan bu soob yàlla jërëjëf asalaamaaleykum aouzu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim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 وعطفة نور تحسننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء التاعنين ومن شر الخلائق أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokk daarul mooti ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di leen ziyaara ci koor gi ñu nekk ak ci bés bi ñu dajee fii ci waxtu wi muy bés alxamis bokk ci waxtu yi nga xamante ne waxtu yu am nga ngëneel la bokk ah, di jéggalu wax dëgg yàlla taarif bi nga xamante ne moom lañ joxe ci sama shaxsiya xëy na man sëriñ bi bi muy wax sax maa ngi gestu di xool ndax dinaa gis ci sama côté ku méngoo jëmm jooju noonu waaye jëmm ju xeeboo nii mënoon naa wax ne ci daara ja la jógee rek ñëw toog fi bu ko defee lépp lu mu wax rek ngeen déggee ko comme ni mu génnee di rafetlu liggéey bii ngeen di def di leen ci sant di leen ci gërëm ndax jëf ju baax la te jëf ju baax yombut arab yi dañuy wax ne laa shukra alal waajib waaye Baye Niass radiyallahu anhu dafa daan wax ne la shukra illa alal waajib sant warut lu may ci lu war parce que nit a ngi bàyyi li ko war defut ko donc ku xam li ko war nekk ci kooku sant ko war na ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla te di ñaan lii sax ba gën a màgg dem ba mel ni durusul xasaniya incha allah wala mu ëpp ko wa ma zalika ala bi aziz place bi ma toog tey wax dëgg yàlla man yëg naa ne yelloo ma fee toog ndax place la boo xamante ne ay akaabir ñoo fi toog te bu mag ñi teewee xale yi lem seeni dàll lañ mën a def toog tàllal seeni nopp di déglu waaye nag suñ sëriñ si dañoo baax ba nga xamante ne léeg-léeg ñoom ay seetu lañ dañ lay teg rek taxaw bu ko defee ñuy xool seen bopp ci seetu bi ngir di gis seen bopp fi mu toll nii lépp lu ma fi nar a wax jàpp leen ne rek ab xale la bu ñuy defal examen sama professeur yaa ngi toog dañ may may note bu ma amee 5 sur baax na bu ma amee 2 sur aussi baax na yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal ñu sadaat Euh, ñaareel bi aussi bërëbu xam-xam bu tool nii képp ku fi toog nar fee wax dëgg la dinga am ñaari xayra yow dugg ndax borom xam-xam yi dañoo wax ne booy wax ñetti xeetu nit ngay waxal kenn ki moo la raw mënoo wax lu ko yéem keneen ki yena tolloo lépp loo wax xam na ko kenn ki yaa ko raw kooku moo xawate ne parce que xëy na mën na jàngee ci yow man nag ma teg ci ne bu demee bay jàng ci yow daa fekk yow nga xam li ngay wax parce que bu fekkee jaaxil bu tool ni man la nga toog di wax moom amul kenn kuy jàng ci yow dara loolu benn la ci xayra yi nga xamante ne nit ki dina ko dugg jamono yu ñu ko joxee genre responsabilité bu mel nii ne mu ñëw jotal ko mu xam ne place bi muy toog ay boroom xam-xam jaar nañ fi ñu ko raw te ñu ko raw ñoom ñoo fiy jaar siwaat te ñu ko raw ñoom ñoo toog di ko déglu ñaareel bi boroom xam-xami usul yi muy ñeenti usul yépp usulul fiq usulul tafsir usulul asar ak usulul taarix ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne nit ki bu demee bay wax benn ci ñeenti yëf moo war a tax mu wax bu ko amut mu noppi benn ci ñeenti yëf wala ñeenti yëf yépp wala xaaj ci ñeenti yooyu première bi mooy bu fekkee da ngay wax wala ngay bind na nga ñëw pour yokk dara ca la nga xamante ne jotoon nañ ko fee wax maanaam mbir la moo xamante ne mës nañ koo wax wala ñu mës koo bind nga gis ne dañ koo tënk yow nga ñëw am loo ci yokk pour nit ñi mën a dolleeku faayida ñaareel bi mooy mbir moo xamante ne dañ koo tënk nga ñëw pour sharxa ko duwut ne da ngay yokk lu bees waaye da ngay ñëw pour sharxa pour nit ñi gën a comprendre maanaa bi nga xamante ne moom la wax ji bëggoon a joxe ñetteel bi mooy mbir la moo xamante ne dañ ko guddal lool ba nga xamante ne ku ko nar déglu wala mu nar koo jàng dina sonn yow nga ñëw pour ixtisaar ko ba mu yomba déglu ñeenteel bi mooy nga indi lu bees loo xam ne kenn kaa wax wala kenn mësukaa bind benn bu nekk ci ñeent yi lu jafe la surtout ci mawdoo bi nga xamante ne moom lañu jox muy al islaam wa tahaddiyaat lislaam ak défi yi nga xamante ne ñoom ñoo koy gaar ngeen jéggal ma nag man élève français la bi ma jógee ci français bi tamit anglais laay jàng ba léegi donc bu ngeen déggee sama arab leerul wala sama maxaarijul xaruf baaxul da ngeen ma koy jéggal donc ñeenti yooyu noonu pour nga indi ko ci bërëb bu mel nii dina jafe lool ak ci thème bu mel nii ndax tem la boo xamante ne nit ñaa ngi ciy wax saa yu nekk nit ñaa ngi ciy bind saa yu nekk dina jafe nga indi ci lu bees dina jafe nga yokk ci luñ lu ñu waxut dana jafe nga saraa ci lu nit ñi déggut dana jafe nga wàññi ci loo xamante ne ni nit ñi defuñ ko ba pare dana jafe en tout cas ci côté yépp boo ko xoolee dafay jafe ci yow looloo taxoon ma ne biñ ma joxee thème bi damay jéem a def rek li Baye Niass daan wax ne bu buñ la joxee waxtaan te préparé woo ko na nga def waxu silama fi sudur bu ko defee tawfiqu yàlla moom mooy jëriñ yal nañu yàlla may dégg ak topp te man fi mu toll nii damaa jàppee sama bopp ci ñenn ñuy déglu laa bokk. damay wax ne alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xamante ne moom moo wax ne inna zamana qad istadaara ka hayatihi yawma xalaqa allahu samawati wal ard yonent bi nee na jamono ji ëlbatiku na ba dellu comme ni ko yàlla bindee woon bis ba mu bindee asamaan ak suuf ah, bu fekkee jamono ëlbatiku na ba dellu nanga xamante ne noonu la yàlla bindee woon asamaan ak suuf yàlla ci alxuraan wax ñu ne yarfau llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajaat kon mbiru jullit ci xam-xam la war a tege lépp lu muy wax mu gëstu ko mu leer ko bu ko xamul mu noppi ay mbir yu bees xew nañ ci lislaam xëy na sama mawdoo duma ko aborder comme ni nga xamante ne noonu lañ tàmmee di ko aborder que ne lii mooy problème bi lii mooy problème bi occidentaux yi la wala téere yi la wala nangam la en tout cas bu ma waxee ba pare xëy na da ngeen comprendre li ma bëgg a wax lu mu doon bil jumla mbir yu bees yooyu xew xatman duut ne jamono yu njëkk ya ñoom ñoo ko mënoon na ilaaj parce que xewutoon ci seen jamono duut jamono saxaaba yi duut jamono taabii yi duut jamono yu topp seen ginnaaw ba ñëw li toll ci asru bi ñuy wax maa qabla taqaddum waaye suñ jamono jii la xew kon donc ñun ñoo am responsabilité boobu pour xool ko pour naaqashe ko ba pare pour taxlil ko mbir yooyu xew dafa dem ba am rapport ak doomi aadama bi ci dundam ci gëm-gëmam ci xelam ci jàngam ci lépp ba tax na ñi nga xamante ne nii ñu ngi daan gëm dara cent ci ginnaaw wala ay mbir yoo xamante ne téeméeri at ci ginnaaw ñu ngi ko daan gëm boo ko defee ñu tuddee la wàllu yàlla tey dafa nekk loo xam ne shay aadi jiddan ay xale yu ndaw ñoo koy def wala xëy na ay jullit ñu dul jullit sax ñoo koy def donc loolu xew nag dafa am lu ko am loo te ñun jullit ñi wax dëgg yàlla di lee ko jànguma dara waaye kem ni ma gis lislaam bi doxee ci jamono jii dañoo négliger point boobu tuuti dëgg la l'islam ci ay texte la basé wu ak ci ay interprétation waaye tamit buñ fàtte ne yàlla ci alxuraan dafa am uslub bi muy waxee te dafa am ay manahij ji nga xamante ne moom la tëralee alxuraanam euh, changement yooyu nga xamante ne moom moo am doomi aadama à chaque fois dafay bëgg lu bees bu jamono di avancé jiilan baada jiilin tool nañ jamono joo xam ne tey la suñ maam yi daan dund ak maam yi lu dul xil la ñi nga xamante ne yàlla defal na leen tawfiq lañ maam yi daan dund yëpp dañuy bëgg soppite am ci ñi changé ko indi leneen lu bees et changement yooyu yan rapport la am ak suñ dund tey mooy am na benn wax yu bu bees bu am bu bokkut ak waxyu bu yàlla wàcce am na jibril bu am bu bokkut ak jibril bi daan wàcce ci yonentu bi ak ci yonentu yi am na yàlla bu am bu bokkut ak yàlla bi ñu xamoon am na lawxul maxfuus bu am bu bokkut ak lawxul maxfuus bi ñu xam am na yeneen yonent yu am yu bokkut ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy na nag ñu bëri danañ jaaxle parce que danañ wax ne maa sami'na bi hada fi abaina al awwalin waaye li tax ma wax loolu mooy bu ngeen xoolee tey doomi aadama bi li ko wër cent ci ginnaaw li liñ daan lekk du ne tey moom la ñuy lekk genre sol yi ni daan sol du ne tey moom la ñuy sol waruwaay yi ñu daan war du ne tey moom la ñuy war lan moo indi loolu mbir la moo xamante ne dafay jëlee wax yoom ci jibrilam bi mu tuddee alxadaara muy mondialisation wala modernité xadaara boobu noonu am moom mooy jibril bi nga xamante ne tey moom moo taxaw pour wuuteeg jibril bële nga xamante ne moom moo daan wàccee waxyu bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa am fu muy defee talaqi waxyu moom tamit bu bokkut ak waxyu bi nga xamante ne moom lañ miinoon ci yàlla fi muy defee talaqi waxyu boobu noonu mooy min ilahim alwahid al ahad alladi la sharika lahu ladayhim al musamma bil aql xel ba tax na tey ñooñ jamono ji lépp loo xamante ne nii xel nanguwut ko wala xel mënu kaa xalaat ba prouver ko parewul pour gëm ko ñeen nañu ci ñoom surtout nag boo jàngee éducation occidentale xanaa yàlla dimbale la lu bëri lu maam yi daan gëm lu bëri loo xam ne boo ko defaan ñu tuddee la xutbul aqtaab tey ñu dul jullit ñoo koy def comme ni ma ko waxee sànq dafa nekk loo xamante ne lu banaan la kenn faaleetul loolu donc ñoom li nga xamante ne mooy seen objectif rek mooy lan la xel wax ak lan moo tegu ci xel ak xel boobu noonu naka la mën a def ba moderniser jamono ma gis ne côté boobu noonu lislaam daf cee xaw a deltu ginnaaw waaye l'islam deltuwut ci ginnaaw yenn borom xam-xamul islam yi ñoo ko ci bëgg a delloo ginnaaw te incha allah di comprendre lu tax. tey tubaab bi fexe na ba coloniser na xelu doomi aadama yi comme ni mu coloniser woon seen jëmm yi ci at yi ci ginnaaw xeli doomi aadama bi tey lépp lu tubaab bi defar. am na ci ñoo xamante ne bu leen yàlla dimbalewul may leen tawfiq moom la ñuy gën a gëm que li nga xamante ne moom la yàlla wàccee ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam te mbir yooyu noonu nga xamante ne tubaab bi mu ñu koy defal di ñu ko indil benn objectif rek la am mooy effacer gëm yàlla ci kaw suuf bi nga xamante ne suñ maam yeeg suñ maamataar yi ci lañ sukkandiku woon nga xamante ne imaan la woon ak istislaam faqat ma aataakum rasulu fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu ñoom tey suñ jamono yi doxeetuñ loolu lépp lu ñuy dox mooy lan la jibril bu tudd xadaara wàccee jibril bi tudd xadaara moomu lan la ko yàllaam bi tudd xel jox léegi nag bu ñu ko nattee ak seen xel boobu nga xamante ne moom mooy seen yàlla ji tey moom moo taxawee palaasu yàlla tey mu dëppoo ñi gis ne mën nañ koo jël xadaara mën na koo doxee ñi daal di soppi la nga xamante ne moom moo weesu woon waaye nag jibril boobu moom tamit dafa am lawhul mahfuz boo xamante ne fa lay jàngee xibaar yi muy wàccee comme ni nga xamante ne yàlla noonu la ñu waxee ñu am nañ suñu lawhul mahfuz bu ñu gëm te tey ñoom ñi taxaw pour effacer lawhul mahfuz boobu ci xelu jullit bi ak xelu doomi aadama bi complètement gëm loo la ne loolu ay wax la rek yu amut wa tilka axbaarun faqad rawaha muxbiru muxbiru muxbiru xaybin duuna an naraha wa laysa maa yura kama yurwaha loolu la waykat bi waxoon ay xibaar la rek yoo xamante ne nii dañ koy riwaaya benn xibaarkati xayb moom moo ko riwaaya woon gisuñ ko te liy bët di gis bokkut ak loo xamante ne ay théorie la seen la lawxul seen lawxul mahfuus boobu mooy lan mooy li ñuy tuddee science lan la science di wax tey ci jamono ji ba tax na lépp lu la yàlla wax tey ci alxuraan wala yonent bi wax la ko ci xadis bu wér bu science uuteeg moom lil asafi shadid ba yenn ci borom xam-xam yi dañuy préférer tawil waxu yàlla gi wala ñu bàyyi waxu yonent bi pour jéem a topp li science wax ñu ne la vérité scientifique wala science a prouvé tel science a prouvé tel boobu noonu. am na ci ñoo xam ne tey ci jullit yi commencé nañ di am sikk sàkk ca lawhul mahfuz bañ leen waxoon ci alxuraan ndax lawhul mahfuz bi nga xam ne moom moo teew tey te mbir la moo xamante ne duut ay théorie soxlawul ay philosophie yu ñu lay tegal nga xam ne imaan rek moom moo koy dëggal waaye doo ko gis alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin allaziina yu'minuuna bil ghaybi ñoom dañ la koy tegal mu palpable nga mën koo gis micro baa ngi nii ventilateur baa ngi nii caméra baa ngi nii lampe yaa ngi téléphone yaa ngi nii la nit daan bind léeg-léeg di ko dugal ci bibliothèque mu fees del léegi mën nga kaa dugal ci benn téléphone bu daw dugal ko ci sa poche kon ñoom dañ loo dañ laa indil loo xamante ne c'est palpable nga mën koo laal pour ñu wuutee ko ak lawxul mahfuz ak yàlla ak jibril ma nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekkoon di la wax loo xamante ne gisoo ko waaye da nga kaa gëm rek maa aataakum rasulu fa xuzu wa maa nahaakum anhu fantahu iza amartukum bi shay'in faatu minhu mastata'tum wa yi commencé na di soppeeku moo tax ma ne inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma xalaqa allahu samawati wal ard lislaam nag diine la joo xamante ne dañ ne diine pour fépp la pour faw la pour ñëpp la kon dafa war jamono ju nekk bu lislaam di dox jamono di dox ñu xool naka la lislaam mën a méngoo ak jamono ba nga xamante ne ñu am contradiction waaye bu fekkee jamono dafay dem nii lislaam dem nii ala foog am benn bu ci nekk dëgg am benn bu ci nekkul dëgg te ñooñ jamono ji doomi aadama yàlla daf kaa bindee noo xam ne moom li muy gis la mën a gëm te loolu nag moo indi risque bi nga xamante ne tey jii nit ñi ñu ngi koy dund surtout ci yenn réew yi mooy murtad yi gars yi di murtad di génn ci lislaam ci yenn réew yi et très important suñ dëkk yi yàlla xaw nañu cee musal waaye nag mbir la moo xamante ne mu ngi am doole te mu ngi gën a law comme na nga xamee ne noonu la ay meññetu xaal di lawee ci suuf bis dina ñëw buñ jugut jéem a def tasaddi baare kii bii nii problème bi yàlla tere dina ñëw ba agsi ci suñu réew yi parce que dégg nañ fi ñuy wax ne sëriñ si ay nit ordinaire lañ dégg nañ fi ñuy wax ne course développé wu dëkk dégg nañ fi ñuy wax nangam dégg nañ fi ñuy wax ne dem ci sëriñ di ko ñaan bokkaale la loolu noonu yëpp préparation la boo xam ne dañ koy préparer terrain bi bis bu terrain bi demee ba nangu loolu ñu daal di indi afkaar yooyu teg ko fa boobaa nag bàyyi ña sag Serigne Touba si Hadji Malick booy boo ñu xool yenn taalibe la mën a amati ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko yàlla du lem jamono ak lemin wala du lem xam-xam ci jamono ak lemin waaye daf koy lem ci jëlee fi ñu baax ñi buy ñu baax ñi di dem tey jamono ngi ñëw ay ñu bon ñooy juddu fekk fi ñu bon ñu baax ñaa ngi dem di gën a wàññeeku amatu kenn koy xool pour mën a am li anglais di de relief maanaam mën a am ressourcé wu rabbi xawsan faqad ahdartu zamanan laysa fihi an dalali nuxaatu médecin bi ngay dem pour mu faj la moom moo la gën a feebar comme ni waykat bi waxoon haza zamanu alladi kunna nuxaziruhu fi qawli kaabin wa fi qawli ibni masudi in daama haza wa lam yaxdus lahu xiyarun lam yubka mayt wa lam yufrax bi mawludi jamono toll na foofu tey ñu jug defaat discours yu bees bindaat xam-xam bu bees xoolaat lislaam xool bu bees interprété waat alxuraan interprétation bu bees xoolaat xadis yi xoolin bu bees paa ñi ñëw rek taxaw ne la mujaahid wax na nangam muqaatil wax na nangam aaya bi nangam lañ ko firé nangam lañ ko firé foog nga dem ci loolu. ñoom seen jamono loolu amutoon ñun suñ jamono loolu am na te l'islam pour jamono jëb la te de l'islam pour nit ñëpp la illaa kaafatan linnaasi wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi kon yow ak Donald a ci yem. war ngaa fexe ba sa déggin ci alxuraan ak déggin Donald Trump warta uute waaye même bu fekkee uute na war ngaa fexe ba nga xamante ne Donald Trump moom bu gisee sa déggin ak dégginam mu wuute mu xam ne moom moo juum waaye fi mu toll nii ñoom gis nañ ne ñoom nekk ci dëgg te dinaa leen ci joxe am si la yooyu noonu nga xamante ne moom moo am lawxul mahfuus bi am yàlla ji am jibril bi am waxyu bi am des na benn mooy yónnentu yi mooy tubaab yi nga xamante ne tey ñoom ñooy prospérer loolu ñoom ñooy doxal loolu wax yu bi nga xamante ne moom la ñuy wàccee nag mooy ressources yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee tey yenn yi ñu koy jëlee ci suuf yenn yi ñu koy jëlee ci géej yenn yi ñu koy jëlee sax ci tàngaayu naaj bi yenn yi ñu koy jëlee ci seddaayu weer wi di ci def ay mbir yoo xamante ne nii jullit yi mënuñ koo def te seen alxuraan ci zaahir bi nii. ñoom doxuñ dox bu leen alxuraan mën a wane fu ñu defalee loolu waaye dañoo déggee alxuraan beneen déggin nga xamante ne jamono yu njëkkee boo gisaan oto di daw di ñëw boo moytuwul nga daw yuuxu ne gis nga jinne waaye tey oto bi day ñëw sax ngay sëgg sa téléphone di manipuler foog muy corne ba sonn parce que da ngaa foog ne sa benn xarit rek mooy ñëw. am loo xamante ne ni dañ koo defar muy naaw ci kaw jaww ji am ñaari laaf bu fekkee bu njëkk ba dañ la daan wax ne qayyumu samawaati wal ñoom indi nañ la avion tegal la. ne la ana qayyumu samaawaati wal ardi lii mu ngi nii moom moo taxawal boppam ay moteur ñoo ko taxawal. am yoo xamante ne sax ci ñoom duut ne doomi aadama moo koy dawal waaye dañ koy jox autorisation fañ toog manipuler ko ebal ko mu dem fañ bëgg mu dem def fa nombre de minutes yi ñu bëgg mu def dellu si waat du ci yokk seconde. loolu yëpp xeli doomi aadama mu ngi koy gis tey xeli jullit bi mu ngi koy gis génération jullit yi di juddu tey di jàng français di jàng Karl Marx di jàng ñoom de ñi ngi gis loolu. surtout nag boo ci boolee ñoom Steve Jobs ñi defar Apple juddu nañ xale yi juddu màgg ci seen jamono gis loolu noonu nga ñëw bëgg leen na wax waxu xaybu dañuy soxla beneen définition ak beneen firnde bu bokkut ak bi leen maam yi bàyyee loon waxuma ne li maam yi bàyyi duwul lu baax waaye li maam yi bàyyi lañ comprendre lañ ko war a comprendre ci loolu nga gis ne tey jii tubaab bi fexe na ba ci matière yooyu ma wax mu defar loo xamante ne fi nga toog ngay toog composé ay numéro wax ak ku nekk Londres wala ku nekk états uni jamono yu njëkkee loolu boo ko defaa ne yaay xutbul aqtaabi tëju ci sa néeg xalwa di dégg waxu nit ku nekk fële Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu tëju Mbàkke di dégg wax ku nekk Daaru Muxti wala di dégg wax ku nekk Kaolack loolu xutbul aqtaabi lañ lañ ko daan tuddee ci jamono jooju noonu xutbu zaman waaye tey xëy na ñay defar téléphone yooyu bu ñu la jiitee julli sax doo topp seen ginnaaw waxuma la julli waaye reñ bi sax bu ñu ko defee doo ko lekk xeli julli bi mu ngi gis loolu doomu jullit bi mu ngi jàng loolu te yàlla daf ko wax ci alxuraan moom ne ko tàggatal na ko lépp moom jullit boobu noonu léegi loolu yàlla tàggatal ko lu tax jëriñoo wut ko yàllaa ngi wax ci alxuraan wa saxara lakum alfulka li tajri fi lbahri bi amrihi wa saxara lakum alchamsa walqamara daa'ibayni wa saxara lakum alleyla wannahaar wa ataakum min kulli ma saaltumu yàlla nee na tàggatal nañu géej gi tàggatal nañu bëccëg ak guddi maanaam naaj jant bi ak weer wi mais pourquoi ñun ñu toog jëfandikoo woon guddi geeg bëccëg boobu noonu jëfandikoo woon géej géej geeg suuf soosu ba tubaab yi tey ñoom ñoo ñëw di ci génnee ay matières yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy defaral lu ñuy yéem te après ñoom liñ di defaral loolu pour contrer li ko pour contrer ñu ko ñun. di ngeen comprendre li ma bëgg a wax bu ma demee ci fin bi. yàlla di waxaat ci alxuraan ba léegi wa saxara lakum leyla wa nahaara wa shamsa wal qamara wa nujuma musaxaraatin bi amrihi inna fi zalika la ayatin li qawmi yaqiluun xel mooy kële la waxoon ne tey moom lañ tuddee yàlla nga gis ne afala taaqiluuna ci alxuraan yàlla tudd na ko lu ëpp lu mu tudd afala tuminuun yaakaar naa ay kàng fóode ñu ngi fi duñ ma weddi waaye xelu jullit bi saqaafa bi ak turaas bi fexe nañ ba tënk la ne la imaan imaan nga gëmmal say bët nga gëm te bul jëfandikoo sa xel boo bëggee jëfandikoo sa xel pour interpréter benn nas wala nga jëfandikoo sa xel pour am ci benn dégg ñi ne la mu'tazili yi nga wala ñi ne nga xaw ma lan firaq yooyu noonu ñuy tuddee nit ñi classé la foo xamut boo moytu ñu ñëw tëkkal seen tubéy guddal seen sikkim ba mat un mètre ñu yóbbu la safar toog dem naan seen ataaya te yàlla tudd alxuraan tudd xel ci alxuraan lu ëpp mu tudd imaan kon nga xam ne bu fekkoon jullit yi fexe nañ ba jiitu ñi nga xamante ne duwuñ jullit ci jëfandikoo xel boobu noonu est-ce que kon tey mënuñoo yaakaar ne jullit yi ñoom ñooy defar micro bii may waxee téléphone bi ma téye est-ce que duwul ne ñoom ñoo koy defar kon waaye kenn amul sikk ne tey duwul ne ay jullit ñoo ko defar ñu nekkul jullit ñoo ñu ko defaral indil ñu ko te pourtant yàlla mayoon nañu opportunité boobu ndax tàggatal nañu lañ koy defaree waaye malheureusement alxuraan dañ koy jàng. turaas bi fexe na ba tënkuñu ci ne da ngay jàng alxuraan juste pour jooy wala pour am fukki yool ci xaraf bu nekk bu ko defee nga tëju sa biir néeg di jàng di génnee ronqañ boo paree fomp génn afalaa yatadabbaruuna alquraana am ala qulubin aqfaaluha xaraf ya ngay udd yool loolu commerce la ak yàlla bu yàggee shirk lay doon parce jënd ak jaay la te yàlla soxlawul loolu wa abudullah muxlisina lahu diina kon alxuraan sax boo koy jàng da nga ko war a def ak ixlaas waaye la ci yàlla di jox te benn objectif la la wax ne moom la ci soxla mooy nga tadabbur ko waaye tadabburuñ ko boo gisee benn aaya doo taxaw xool siyaaqu aaya bi ak lan la la ci yàlla wax waaye yaa ngi yàkkamti xool lan la ci ikrima wax wala lan la ci mujaahid wax wala lan la ci muqaatil wax après nga romb ne la tabari nii la ko firee xurtu bi nii la ko firee ibnu kasir nee na nangam jeex na xalas dem tëddi nelaw du moment que tubaab yi ñoom ñi ngi jël sa alxuraan boobu noonu ak matière yooyu yàlla bindal la te wax la ne moom moo la ko tàggatal ci alxuraan di ci jëfandikoo loo xam ne finalement yow yaay mujj ñëw nekk seen jaam yàlla di ñu wax ci alxuraan mu ne alam tara anna allaha saxara lakum maa fi l ardi wal fulka tajri fi l bahri bi amrihi wa yumsiku samaa an taqa ala l ardi illa bi izni suratul tàggatal na la asamaan ba pare téyel la suuf wala tàggatal na suuf ba pare téyel la asamaan te téere bi ci yow lañ ko wàcce moo tax tubaab yi dañuy wax ne amul dara luy contrer jullit yi lu mel ni seen téere bi maanaam boo bëggee yey jullit yi rek indil alxuraan teg moo tax fi mu toll nii jamono toll na foo xamante ne risque bi egg na foo xam ne tubaab bu jàng dëgg dëgg dëgg bu toogee jullit yi boo moytuwul murtatloo ñu bëri ndax yu mel nii ci alxuraan te après da xool ne toor bi ndekete ci yow la nekk. téere bi dafa aw ndeyjoor yow nga aw càmmoñ yow julli bi nga xamante ne chaque jour nga jullee ko am na ñoo xamante ne sax moom la ñuy wittere mu wàccee ko mu jeex yàlla waxaat la ci alxuraan mu ne alam tara anna allaha saxara lakum maa fi samawati wa maa fi ardi wa asbaga aleykum niamahu moo la tàggatal li nekk ci asamaan tàggatal li nekk ci suuf ba pare daal di la bëbëtal ay ngëneelam wala ay yërmandeem ay neemam neematu yàlla yooyu lan la ndax neema yooyu noonu mooy ngay xiifal sa bopp di maral sa bopp ba jant bi soo nga lekk jeex na wala neexma boobu mooy nga tëju ci xalwa téye peru kurusu junney per déedéet yàlla daf la bind yow doomi aadama bi pour nga jëriñ jëriñe te doo mën a jëriñ jëriñe mukk lu dit aalaat yi nga xamante ne moom la la boole bi mu la bindee nga jëfandikoo leen te malheureusement loolu tey gisuñ ko ci jullit yi Euh, yàlla ngi wax ci alxuraan ba léegi allahu alladi saxara lakum albaxra li tajri alfulka fihi bi amrihi wa li tabtaxu min fadlihi wa laallakum tashkurun wa li tabtaxu min fadlihi ngeen sàkku ngëneelu yàlla naka ngay sàkkoo ngëneelu yàlla alxalqu kulluhum iyaalullahi wa ahabuhum ila llahi anfauhum li iyaalihi loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbindeef yàlla lañ ki ci ëpp njëriñ mooy ci ëpp njëriñ ci mbindeef yi wala ki ci gënal yàlla mooy ci ëpp njëriñ ci mbindeef yi waaye yow jullit bi tey laajal sa bopp yow ak tubaab bi kan moo ëpp njëriñ ci humanité yombalal na la sa dund ba nga xamante ne mën ngaa jugee dakaar trois heures de temps nga yegg si Daaru Muxti buñ la bàyyi woon yow jullit bi kot konoon ba léegi yaa ngi def ay fan ci di yoon bi kon yow moom kan moo ëpp njëriñ te pourtant téere bi ci yow lañ ko wàccee yow yaay jullit bi yow yaa gën a ci téere bi. lu tax nga seetaan bañ romb la taxaddi la boo xamante ne tey suñu religion bi mu ngi koy fees te boroom xam-xam yi bàyyiwuñ ko xel boo waxee rek ñu ne la waa alqaida réew sàngam moo leen créé waa Daesh réew sàngam moo leen di financé aywa ñun nag moom ngeen nañ dem tëddi nelaw bu naa fi la jotee ñu dem jàng alxuraan nit ñuy jooy jeex na ñu dem raay kaaba gi fóon xajrul aswad damay ragal ne yu mel noonu boo ci dee dem safara de parce que yàlla bind la woon loolu am na leneen lu taxoon mu bind la damay ragal ne yu mel noonu buñ ci continuer danañ togg bés lislaam doot amati kenn ko gëm te yàlla tax nit ñi dañuy jaamu yàlla rek soit ngir ragal soit ngir gistal waaye imaan bi nga xamante ne moom la yàlla soxla ci jaam yi dootu fa nekkati li gën a yéeme ci lii yëpp mbokk yi bu la yàlla tàggatalee lépp ba pare wax la ne tàggatal na la ko dama tënk aay yi mën naa indi lu ëpp lii boo xoolee kutubu sitta li ñuy tuddee kutubu sitta ci ñun Bukhari Muslim Tirmizi Nasaay Abu Dawud Ibnu Maaja amul ci benn ci ñoom booy ubbi ba gis ci téere ci baab ñi ne la baabul aqli wala baab at tafakkur fi xalqillah amut xanaa ñu ma wax ne yonent bi 63 ans yi mu dundee mës wax benn xadis ci ngëneelu tafakkur fi xalqillah xanaa duñu wax ne yonent bi 63 ans yi mu joxe risaala yëpp mës ta wax benn ngëneel ci xel al aqlu mu jëfandikoo xelam yàlla wax na la ci alxuraan ne la lépp lu mu la wàcceel ci alxuraan ak lu mu tàggatal ay firinde la ay aayaat la ngir ñi nga xamante ne ñoo am xel te amul benn baabu baabul aqli ci kutubu sitta du moment ñi ngi def baabu zina solin taaru parfum soccu sax defal nañ ko baab baabu siwaak mu ngi fees dell dagg sawee sax defal nañ ko baat waaye li tax yàlla bind la te moom mooy central ci doomi aadama muy xel defaluñ ko baat réeral nañ xadis yooyu yow doomi aadama yow jullit bi bul ko xam tënkul rek ci benn xayra nga nekk fii waadin xayri zi zarin ba kañ yaakaar naa ne am na ñu ma gën a dégg xadis ñu ma gën a xam xadis ñu fi nekk bu ñu gisee benn baabul xadis ci kutubu si baabul baabul adli kii kon baabul aqli wala baabu at tafakkur fii xalqillah ci kutubu sita nañ ma ci dimbale bu ko defee ma gàggantiku waaye kem li ma jot xool gisuma ko ci kon da gis ne jullit bi dañ koo tënk depuis le début pour finalement ay noonam mën a ñëw am pouvoir ci kawam ba pare noot ko loolu bokk na ci lu war suñu daafu bii ñu nekkee tey nga xam ne buñ ci tinkeeku woon rek ba léegi ñu ñoo téye àdduna bi depuis ci asrul awwal au lieu que ñu concentré wu ci naka la ñuy joxee mabaadi islaam naka la ñuy jàngalee nit mu jëfandikoo xelam naka la ñuy génnee mbóot yi nekk ci biir alxuraan ak njëriñ yi nga xamante ne yàlla bindal nañu ko ci déedéet dañoo concentré wu ci ay futuhaat léegi jullit bi li muy tiitaroo mooy ubbi nañ ba ubbi Andalus ubbi nañ ba ubbi Xuraasaan jeex na léegi quel est le résultat Andalus quelques années après pertaan nga ko les chrétiens yi moomaat nañ ko quel est le résultat Xuraasaan ak Mawara an-Nahri fi mu toll nii l'islam bi dëgëratu fa ay chrétiens ñëwaat nañ fa deltu ginnaaw la mooy li ñu Nicolas Sarkozy doon xasee mooy éternel recommencement ñii di wax ne dañuy dem jihaad pour ubbiwaat ay dëkk mais boo jihaadee pour ubbiwaat ak ay dëkk tamit maadaama sareen yi nga xamante ne moom moo samp garab gi mu ngi taxaw ci lii ba léegi fi Andalus mujj foofu lay dëkk yooyu di mujjaat mooy soit ñi xaaj leen comme ni ñu def Soudan wala soit nga pertaat ko comme ni nga perte Andalus wala soit ñi yàq leen bañ nekk ay faux musulmans comme ni yenn réew yu bëri ci Afrique fii men Afrique noire yu mel ni ay Côte d'Ivoire yu mel ni ay Sénégal nga gis ne nit ki dafay mbubboo jullit jigéen bi dafay mbubboo jullit waaye doo xam ne jullit dafay waxul la turam ndax solinam solinam ak jëfinam ak meno menokaanam dafay nekk jullit ci tur léegi nag buñ gisee ne mbir yii yëpp di am yàlla wax ñu ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko waroon di jëfandikoo waaye jëluñ ko jëfandikoowuñ ko dañoo war a xam ne ci cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent responsabilité bi dafay tegu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee diine ji di ko doxal te doxaluñ ko ni ñu ko waroon a doxalee quatre vingt dix pour cent dëgg la bu naqadi waaye nañ ko assumer nañ assumer suñu responsabilité te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw di contrer loolu muy tubaab yi ak doomi jullit yi nga xamante ne tey ñoom ñooy jàng tubaab jàng nasaraan ñi ngi xaar ñi indil leen ay leeral ci point yi bis buñ demoon ba am jawaaban shafiyan danañ dellu siwaat waaye tey toll nañ foo xam ne bu nit ki soree ci jàngam nasaraan sax imaanam xanaa yàlla rek moo ko ci mën a dimbali waaye lu mu nekk nekk murid wala mu nekk nekk tijaan da nga gis mu commencé di gis mu commencé di remettre en cause ay mbir di gis mu commencé di weddi ay mbir yu mel nii moo ko waral te kooku bu amoon jawaaban shafiyan comme ni ma ko waxee dellu siwaat fa nga xamante ne nii foofu la jóge lii dama leen ko indil alaawa ji ixtisaar ngir ñi nga xamante ne ñoo may déglu xëy na dinañ comprendre fi ma jublu waaye ñooñu noonu di noonee lislaam am nañ ay problème yu gën a sérieux yoo xamante ne ni moom la ñuy feesee jullit yi te yudut yi par exemple yàlla ngi wax ci alxuraan suratul an'am aaya 38 maa faratnaa fil kitaabi min amul dara loo xamante ne bàyyi nañ ko ci bi mu waxaat ba léegi ci suratu naxli aaya 89 wa anzalnaa alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shayin wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin ci ñaari aaya yi ñoom dañ lay wax ne kon bépp sual bu ñu lay laaj amoo droit ñàkk cee tontu amoo droit wax leen ne lii nii dundu àdduna fii la soxal lislaam dundu àllaaxira la soxal déedéet parce que sa téere bi daf ne la tibyaana li kulli shay'in fee mu ne la maa naa fi kitaab min shay donc l'islam ak alxuraan war naa am réponse ci lépp lan moo ñu jural suñu sous-développement lan moo ñu jural suñu deltu ginnaaw lan moo ñu jural suñu daafu bi ñu nekkee tey te seen téere bi yéen jullit yi wax na leen ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul aalawna in kuntum mu'minin fii ñoom dañ lay wax ne kon ñun ñooy mu'minuna yi ndax ñun ñoo am développement yéen jullit yi amu leen développement kon seetaan leen seen imaan ndax yàlla joxe na critère bi nga xamante ne moom la ñuy xàmmee mu'min mooy mu am kawe am teraanga am tedd nga amul kenn kuy sikki ne tey xeetu jullit yi bokk nañ ci xeet yi gën a suufe ci jaanib yu bari bu ma bañ ta wax ci jaanib yépp te pourtant suñu téere bi moom moo ñu wax ne wala tahinu wala tahzanu antumul aalawna in kuntum mu'minin kon nañ laaj suñu bopp lan moo ñu def ci daafu bi ñu nekkee xanaa kon imaan boobu nga xam ne moom la ñu ñi ñu jiitu kawe woon ñun dañ koo ñàkk ñaareel bi képp ku gis ci semaine yi ñu génn visite bi nga xamante ne Donald Trump def na ko ci Arabie Saoudite nga gis ni nga xamante ne dawla bi ñuy tuddee dawla lislaam tey buur yeeg boroom xam-xam yi noonu lañ sukkee ca kanamam di mel ni ñuy barkeelu ci moom tout simplement pour am mu gërëm leen yaakaar naa Donald Trump bu la déggee ngay jàng wala tahinu wala tahzanu daf lay reetaan wa antumul aalawna te yaa ngi nii di sukk ci kanamam bi ko raamal hadaaya yi ñu ko jox ak ay teranga rek ay million yu dollars la. milliards milliards dollars. te bul bul sikk ne moom ba muy campagne campagne am yëpp daf koo ci xeex lislaam ak ci xeex jullit yi waaye mu dem ci réewu lislaam mi teral ko teranga buñ ko mës a teral ci àdduna bi fépp. ba pare boo ëlbatikoo di jàng wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna te xëy na tey Donald Trump maqaama boobu mu taxaw. yow yaa ci waroon a toog yow jullit bi comme ni ma ko waxee deltu ginnaaw ci wàllu xam-xam suufe ci wàllu xalaat ñàkk pauvreté feebar yépp tey fu mu nekk ci réewu jullit yi contraire bi moom moo nekk ci réew ñi nga xamante ne ñoom la ñuy ooyee ñu dul jullit boo fa duggee climat bi lay suufle foofu sax ak climat bi lay soufflé suñu réew yi bokkuñ nga xam ne boo fa defee deux boo ñëwee certain bi changé lekk ya ngay lekk foofu ak lekk ya ngay lekk fii bokkul tey jii dem nañ ba nga xamante ne yow jullit bi nga am benn apartement ci États-Unis wala ci Paris privilège la pour yow 65 mètres carrés ñu autorisé la nga moom ko ci Amérique rek da ngay jàpp ne fi mu toll nii daa mel ni jox nañ la Firdawsi te pourtant sa alxuraan mu ngi lay wax ci suuratul An'am aaya 82. allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaayika lahumul amnu wa hum muhtadun léegi ñoom bu ñu la laajee nee la ulaayika am amnu wa hum muhtadun te yéen seen dëkk yéen jullit yi amul sécurité yéen a ngi rayante seen dëkk yi amul courant bu mat lëndëm bi nit ñaa ngi agressé seen dëkk bi amul jàng yu baax nit ñaa ngi ci dellu ginnaaw seen dëkk bi amul faj bu baax nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi ba léegi jigéen ñaa ngi dee ci kaw saret yi seen dëkk bi amul dara loo xamante ne nii mën nañ koo comparer ak suñu dëkk yi te seen dëkk seen téere bi moom moo ñu wax ne allazina amanu wala mel bi su imaanu bi su ulaayka am amnu ana sûreté boobu nga xam ne moom la yàlla dig julli ñi ci alxuraan est-ce que duñ laaj suñu bopp kon ne ndax imaan boobu nga xam ne moom mooy waral ñi am am amnu bi moom lañ ñàkk kon ñoom bu ñu la waxee ne ñoom ñooy mu'minu ne tey loo leen di tontu du neex di càcc gi corruption sur tous les niveaux politicien beeg kay tuddee boppam sëriñ ak je pèse bien mais moo dama ne kay tuddee boppam sëriñ waxuma sëriñ bi kay tuddee boppam sëriñ commerçant beeg ñépp ku nekk tey il est mën nañ koo jënd mu ngi sàcc mu ngi wax lu dul dëgg suñ dëkk yi jaxasoo total te ñu ngi mbubboo lislaam te pourtant suñu téere bi moom moo ñu wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib ñoom seen dëkk yi boo fa demee alal ni mu lay yombee boo nekkee ci dëkk jullit di doo ko yombee noonu kon est-ce que doo laaj sa bopp wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib boobu noonu ndax taqwa boobu nga xam ne moo koy waral moom nga ñàkk léegi ñoom bu ñu la waxee na ñoom ñooy ñi yàlla moo tax yàlla may leen seen dëkk bi lépp yomb fa ba ku bëgg alal dem fa saa yoo déggee bato lab ci géej gi rek ay jullit ñoom ñooy daw di gàddaay dem dëkki tubaab yi ñi ngi sàkku di ngéeju ñu jël leen en tant que ay raxaskati bool wala ay gardekatu xaj wala ay gardekatu xale pour ñi mën a am lu ñëw tabaxee seen kër yore seen dund te pourtant ay jullit dañ te kee moom ngay tuddee xéeféer bi te yàlla nee na la wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib yow jullit bi sifa bi ci yow la wonoon gën a feeñ ki nga xamante ne duwul jullit kon est-ce que duwul ne sa l'islam bi moom nga war a xoolaat ak l'islam bi nga xamante ne moom lañ lay pratiquer loo léegi ci jamono ji kon bu ñu la waxee ne ñoom ñooy jullit yi tey ñoom ñoo gëm yàlla moo tax yàlla defal leen loolu yépp naka nga leen di weddee sa aaya lañ lay ixtijaajalee addiinu ko min jay bi ko comme ni arab di wax tey suñ jamono ji toll nañ foo xamante ne saa yu guerre amee diggante dëkk jullit ak dëkk ñi ñu tuddee xéeféer finalement dëkk jullit bi mooy mujj daanu Afghanistan gis nañ ko drapeau Irak allahu akbar lañ ci bind bañ jàmmaarloo dañoo wékk Saddam kii ko pendre ko gis nañ ñu def Kadhafi gis nañ ñi def Syrie gis nañ ñi def Yaman te pourtant sa téere bi mu ngi lay wax yow jullit bi kene la wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun léegi ñoom xéeféer yi bu ñu la waxee ne tey ñun ak yéen kan mooy jundullaahi loo koy tontu parce que saa yu ngeen jàmmaarloo mu gañe la ndax doo laaj sa bopp ne dafa am loo ñàkk ba tax daafu boobu dugg ci yow ba ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekkoon ci sa suuf yàlla saytara leen ci sa kaw ñu dominer la tey tey réew yu bëri ci réewu jullit yi ak organisation jullit yi ñu bëri jébbal nañ seen bopp réewu tubaab yi wala réew yi ñuy tuddee ay réewu xeeféer ngir lan am rek coopération bu baax wala am dëkk yooyu gërëm leen pour di leen mën a financer lu dul ay dëkk yu néew te yu néew yooyu di bañ aussi ñu ngi leen di embargo ñu mel ni ay Iran yooyu te pourtant yow jullit bi. yàlla mu ngi lay wax ci alxuraan ci suratul anbiya aaya 105 wa laqad katabna fi zaburi min baadi zikri anna al arda yarisuha ibadiya saalihun inna fi hada la balaagan li qawmi aabidin léegi ñoom tey comme ñoom ñoo doon suuf si ba képp ku bëgg am dundin bu neex ci suuf si bëgg am économie bu prospère foog nga coopérer ak ñoom est-ce que bu ñu la waxee ne kon ñoom ñooy ibadiya saalihun dina neex a weddi yow sa salaax fu mu yem ci jumaa jeeg ci néegi xalwa bi ndax loolu moo taxoon yàlla bind la ndax jamono yonent bi noonu la salaaxa bi menoon noonu la lislaam menoon noonu la julli di tolloon sa téere moom moo la wax lii nee la dina la donnuloo suuf si te pourtant tey gis nañ ne waaqi an yàlla donnuloo la suuf si keneen ku dul jullit wala ñeneen ñu dul jullit ñoo yokk suuf si tey jii balaa bëri di set bépp dëkk bu Amérique bëgg bombardé dina ko bombardé waaye amul benn réewu jullit tey bu ñemee bu ñemee rey sax benn citoyen américain fanaan ci jàmm te bokk na comme li ma li ma leen di wax sànq ci rey bi yaat yooyu nga xamante ne ñoom indi nañ ko pour contrer sa rey bu bu ñu la gëmloo bu njëkk ba dañ naan la malaayka yi la yàlla ebal ñi dem ci xeetu sàngam ëlbati asamaan si delloo ko ci suuf jël suuf si delloo ko ci asamaan maanaam ñu dëpp suuf ci seen kaw malaayka yi la yàlla ebal ñu def nangam malaayka yi la yàlla ebal ñu def nangam ñoom tey fexe nañ ba ci li la sa téere bi wàcceel yow jullit bi ñi jëfandikoo ci loo xamante ne mën nañoo fabriquer loo xam ne tollut ni micro bi wala tollut ni benn bërigo waaye buñ ko sànnee mu tasaari dëkk lëmb ñi koy tuddee bomb lépp loo xam ne bu njëkk ba dañ la naan malaayka moo koy def ñoom tey fabriquer nañ ay machines yu koy def pour nga mën a weddi di yële ñëpp gis nañ ñu def Hiroshima ak Nagasaki bomb yi ñu fa sànni yaakaar naa tolluñ ni saag bii nii te yàlla ci alxuraan daf ne la malaayika yi la daan yebal ñoom léegi bu ñu ñëwee ne la seen yàlla jooju noonu day wax lu ko neex rek seen lislaam bi dañuy wax lu leen neex parce que ñun fi mu toll nii defar nañ lu ndaw loo xamante ne mën naa yàq dëkk comme ni ñu wax malaayika yee te ñoom li ñuy wax fi mu toll nii mooy ne seet nañ histoire interrogé nañ seen i lépp seen i yi am yëpp waaye gisuñ fenn ci àdduna bi mës a wax ne histoire tënk na ne dëkk sàngam dañ kaa mës ëlbati suuf si féetee kaw kaw féetoo suuf loolu la ñuy taxaddiyee jullit yi tey loo leen di tontu te ñoom indi nañ la lu ko mën a def de te bul fàtte ne loolu ñu ko defaree noonu muy ay mawaad yu jugee ci suuf ak ci ak ci doj wala ci jant mawaad yooyu yow la yàlla wax ne moom yow la ko tàggatal ci alxuraan. waaye jëfandikoo jëfandikoo tàggat boobu noonu moo tax ba nga ko bàyyee keneen jël comme li olof yi comme li xale yi di wax alalu bayti man xoslu na koy dundee maa asaabakum min musibatin fa bimaa kasabat mooy li nga xamante ne moom la jullit bi war a xam tey lépp lu la dal ci musiba lépp lu réewu jullit di nekkee tey ci deltu ginnaaw lépp lu lislaam nekkee tey ci ay taxadiyaat ñun ñoo ko sosal suñu bopp buñ doy buñ jooytu ci kenn nañ jooytu suñu bopp wasaayil yooyu ñoom tubaab yooyu dañoo am ay yoon yu bari yuñ jaar wala lislaam dafa am ay yoon yu bari yum jaar ba yegsi ci daafu bii nii nga xamante ne moom la toll <coughs> bokk na ci wasaayil yooyu première bi mooy deltoo delloo jàngaleek alxuraan ginnaaw ba nga xamante ne risaala bi alxuraan waroon na joxe mayuñ ko mu joxe ko ni mu waree comme ni ma ko waxee sànq tënk nañ alxuraan ci commerce sa digganteeg yàlla alxuraan dafa am ay raayaat mën nañ ko tënk ci ñeenti raayaat yoo xamante ne ni moom moo tax yàlla bind asamaan ak suuf bind doomi aadama raayaat yooyu noonu boo ko faussé da ngay faussé sa mission ci kaw suuf complètement te malheureusement ci suñ turaas préparé luñ ñu lu mën a tax ñu xam raayaat yooyu ba dund ko première bi ci raayaat yooyu mooy raayatul ibtilaa nattu tey fexe nañ ba yow jullit bi sa digganteeg ibtilaa mooy boo feebaree ñu la yàllaa la nattu wala sa alal rek ñu ne la nattu yàlla la ñu ne lay nattu yàlla la foofu rek la ñem te pourtant boo delloo ci alxuraan ibtilaa am na maanaa bu gën a xóot boobu noonu bu gën a am diqa boobu te moom moo nekkoon première raaya bi tax yàlla bind asamaan ak suuf yàllaa ngi wax ci alxuraan. tabaaraka allazi bi yadihi mulku huwa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum pour mu nattu leen maanaam ibtilaa kese moom moo tax yàlla bind la ibtilaa boobu nag mën na nekk xis yi mën na nekk maanaw yi mën na nekk ci ay jawaanib yu uute mën na nekk ibtilaa ci jëf yu baax ak jëf yu bon mën na nekk ibtilaa ci sa dund ak sa dee mën na nekk ibtilaa aussi ci sa adlu ak sa ñàkk adlu waaye war ngaa jàpp ne yow jullit bi loolu mooy première raaya bi tax yàlla bind la euh, yàlla ngi lay wax ci suratul kahfi fa laallaka baaqiun nafsaka ala asaarihim in lam yuminu bi haza alxadis asafa inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha li nabluwahum ayuhum ahsanu amala kon gis nga ne ibtilaa bi ñëwaat na te wax naa la ne moom mooy première bi ci ñeenti raayaat yi nga xamante ne moo tax yàlla bind doomi aadama moo tax yàlla bind asamaan ak suuf mais l'islam ci turaas bi dañoo négliger loolu moo tax jullit bi daal di wàcc yoon bi yàlla ngi lay wax ci suratu Huud wa huwa allazi xalaqa as-samaawaati wal ardi fi sittati ayyaamin wa kaana arshuhu ala al-maa'i liyabluwakum bi mu bindee asamaan ak suuf ci juróom benn fan arasham gaa nga ci kaw suuf gaa nga nekkoon ci kaw ndox ngir lan ngir mu nattu leen waaye ndax jullit bi tey fexe nañ ba xamal la ne yow sa dund gi ngay dund pour nattu la yàlla daf laa bind pour nattu la déedéet lan lañ la gëmloo dañ laa gëmloo na rek wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun jaamul yàlla rek te lii ma fi wax sànq nii ay exemple yu ndaw laa joxe mais problème yi ñoom am nañ ci lu ëpp ay téeméeri téeméer yoo xam ne boo tegoon jullit di ko ko wax bu moytul boppam bi explosé te ci biir alxuraan bi nga koy génneele léegi nag dama leen di wax lan moo tax loolu am moo tax ma commencé ci raayaat yi nga xamante ne moom lañ teggi bañ teggee raayaat yi moo tax ñi perte yoon bi ñoom nag ña nga teg woon ca yoon ba ñoom ñoo ñooñu nga xamante ne gëmuñ yàlla te topp yoon boobu moo leen eggale fi ñu yegg tey yàlla ngi lay wax ci alxuraan ba léegi wa huwa alladi jaalakum xalaa'ifa war ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajaatin li yabluwakum fii ma aataakum yàlla moo leen bind am ñu mu ekkati seen daraja am ñu mu suufeel ngir lan ngir mu def leen ibtilaa nattu leen ci lim leen jox ba léegi ba léegi ci raayatu ibtilaa bi nga xamante ne ci lañ nekkoon jullit bi ñu natt ko ci lañ ko jox lan lañ ko jox première mooy dundam kon dañ laa nattu ci sa dund gi ngay dund fii ayyukum ahsanu amalan ba li nekk ci suratul mulki yàlla di la wax ci alxuraan ba léegi walaw anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhayminan alayhi fahkum baynahum bima anzala allah wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaq li kullin jaalna minkum shiratan wa minhajan walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxidatan walakin li yabluwakum bu neexoon yàlla mu def leen ngeen nekk benn xeet waaye daf leen a tàqale pour nattu leen kon ibtilaa gaaya la boo xamante ne mooy première raaya bi tax yàlla bind asamaan ak suuf mooy première raaya bi tax yàlla bind doomi aadama te jullit bi xamaluñ ko ko téere xadis yi ma xool yëpp gisuma fenn fu mu bind baabul ibtilaa bu fekkee am na ko gis na ma dimbale mu woon ma ko ma gàggantiku kitaabul ibtilaa gisuma ko ci téere xadis yi gis naa kitaabul xusli gis naa kitaabul bawli gis naa kitaabul siwaaki gis naa kitaabul nangam gis naa lépp wattu sax gis naa kitaabam ak baabam waaye kitaabul ibtilaa gisuma ko te pourtant kasaafa bii mu am ci alxuraan ak importance bi yàlla jox ko nga xam ne jullit bi bu ko toppoon daal di achieve maanaam daal di atteindre objectif am ñi daal di ko jàdduloo ci yoon woowu yàlla di la wax ci alxuraan mu ne deuxième raaya bi tax mu bind la yow doomi aadama bi mooy al adlu maandute walla jubal donc gis nañ ibtila ñaareel bi mooy al adlu moom mooy deuxième raaya ci raayaat yi nga xamante ne nii bi ko jullit yi bàyyee ca lañ wàcc seen yoon bal adlu bii nii duwut rek adlu ci diggante ki ngay jënd ki ngay jaay wala ki ngay jëflanteet waaye yàlla wax nañu ci alxuraan que ne moom mooy sax objectif bi tax mu wàccee téere yi yónni yonentu yi yàlla ngay wax ci suratul xadiid laqad arsalna rusulana bi bayyinaati wa anzalna maahum alkitaaba wal mizaan li yaquuma annaasu bil qisti dañoo yónni suñu yonent yi wàccee ci ñoom téere ngir lan ngir ñu doxal dëgg ak jub ak maandute kon ndekete doxal la àddulu ak xist moom mooy li tax yàlla wàcce téere bi wax naa leen ko sanq gisuma kitaabul àddili ci benn téere xadis gisuma baabul àddili ci benn téere xadis bal benn xadis laa gis xëy na mën na am ñaar wala ñett buy wax ci ngëneelu mandute mooy xadis boobu ñuy lim juróom-ñaari nit ñi nga xamante ne dañ ne yàlla dina leen keral bis bi ker amut ñi boole ci imaamuna aadilun jeex na. ak xadis yi niñ bëree nga dégg ñu ne la Ahmad ibn Hanbal mokkal na un million xadis diw mokkal na téeméer junne xadis ana xadis yuy wax ci wàllu mandute ana xadis yuy wax ci wàllu xist ak wàllu adlu te yàlla nee na la moom mooy raaya bi tax mu wàccee téere yi yonentu yi laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa maahumul kitaaba wal miizaana li yaquuma annaasu bil qisti jullit yi dañoo teggi yoon boobu noonu l'islam ci sa turaas dañ laa teggiloo yoon boobu noonu te loolu dafa bokk ci ñàkk tadabbur alxuraan bi nga xamante ne yàlla mu ngi ñu ko doon tere bañ ko ñàkkee tadabbur nag moo tax ñu teggi ko dugg ci xayra bi nga xamante ne ci lañu nekk ba léegi bokk na ci ñàkk mandute boobu noonu nga xamante ne ci lañ nekkee ba léegi mooy gëmloo biñ gëmloo jullit bi que ne la yow rek yaay ko jub yow rek yaay ku baax keneen ku dul ku dëng la keneen ku dul yow safara la jëm te temps yàlla ci alxuraan waxul loolu jàngalewul loolu ñoom fexe nañ ba indi la ay xadiis bokk na ci xadis bu siiw boobu noonu iftaraqat alyahuudu ila ihda wa sabiina firqa wa iftaraqat alnasaara ila nangam wa sa ba pare ne la kulluha fi nnaar illa waxida nangam tasaaroo nañ nangamu xaaj nangam tasaaroo nañ nangamu xaaj ñoom ñëpp safara lañ jëm xeet bi tamit danañ tasaaroo nangamu xaaj ñoom ñëpp safara lañ jëm ba mu des benn xeet ñi ne la mooy wan nga ne mooy aljamaa te pourtant yàlla ci alxuraan boo jàngee alxuraan di nga gis ne yàlla lu uuteeg loolu tamaaman lay wax yàllaa ngi wax ne inna allazina amanu wallazina haadu wannasaara wassaabiina man aamana billaahi walyawmi al axiri wa amila saalihan fa lahum ajruhum rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun est-ce que buñ tadabburoon aaya ak maandute bi ci nekk ndax dinañ ñëw naan yahuud yi 71 xaaj yi ñu xaaj yëpp safara lañ jëm te yàlla nee na la ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm ci ñoom jëf lu baax danañ am seen pay ca yàlla ndax pay jëf lu baax ci yàlla mooy mu yóbbu la safara ñàkk tadabbur alxuraan yàlla nee la inna allazina amanu wallazina haadu wannasaara ci jeexintalu aaya ba mu ne la falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun sa turaas bi ñëw bindal la xadis ne la iftaraqat nasaara ila ila isnatain wa sabina firqa kulluha fi nnaar lan ngay gëm xadis bi ngay gëm wala alxuraan bi ngay gëm eh, lil asafi shadid xadis yooyu wéral nañ ko te loolu bokk na ci li nga xamante ne nii moom mooy problème wu lislaam xadis yu nga xamante ne waruñu leen a wéral ñu wéral leen xadis yi nga xamante ne nii waroon dañ leen na wéral ñu taddiif leen nga dem ba nga xamante ne xadis boobu tey ni ko nit ñi mokkalee ak ni ñu koy déggee dafa mel ni mokkalee wuñ ko aaya bii nii te pourtant mu ngi ci alxuraan saa yooyu taraawix booy wàccee kaamil bi di nga ko wàccee saa yooy jàng sa suba ci semaine bi di nga ko wàccee waaye da koy romb romb boo jàngee inna allazina amanu xaraf bu nekk nga am ci fanweeru yoon looloo lay tere tadabbur aaya bi ba nga xam ne yàlla kat mu ngi wax ne am na nasaraan yoo xam ne danañ dugg aljanna am na yahud yoo xam ne danañ dugg aljanna parce que danañ am fay gu mel ni yow julli bi boo jëfee lu baax li ngay am fa lahum ajruhum inda rabbihim loolu bokk na ci li nga xamante ne nii moom mooy kawaaris yi lislaam dugg te suñuy ñenn ci suñuy borom xam-xam ñoo ñu ci dugal turas bi continuer noonu ba tey taxaddiyaat yi mën a taxaw ci genre yu mel noonu et mu nekk obligation ci jullit yi ñu indi jawaaban shafiyan ci question yu mel nii ndax yéen kese yéen a jub falaa tuzakku anfusakum ndax yéen kese yéen a baax bal ci yéen jullit ñi nga xamante ne yéen a wax ne yéen a baax sax nee ngeen da ngeen xaaj juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett juróom-ñaar fukk ak ñaar yëpp safara lañ jëm benn ci yéen rek mooy jëm aljanna loolu ay xadisu politique la rek yoo xamante ne ni siyaasa bi moom moo ko tegoon parce que jamono jooju noonu bëgg na ñëpp tënku ci ginnaawam léegi bu ne kulluha fi naar illa waahida ñu ne ko ban la mu ne hiyal jamaa donc jamaa boobu noonu képp ku bëgg kii da ngay ñëw tënku ànd ak buur bi loolu nag mooy royaat ba tey yaakaar naa ñàkkul ne yéen a ngi dégg ci suñu mbokk yi cëkkal tuba yi saa yu nekk ñi di leen koy wax xadis boobu noonu ne leen ngeen préparé seen ticket safar yàlla waxul loolu de daf ne leen ngeen préparé seen i jëf yu baax même boo nekkee nasaraan boo jëfee lu baax mu yóbbul aljana parce la mandu teem tegu moom yàlla même boo nekkee yahut boo jëfee lu baax mu yóbbu la aljana waaye même boo nekkee jullit boo jëfee lu bon mu lakk la loolu mooy yàlla loolu mooy lislaam bokkut ak la nga xamante ne loolu lañ la gëmal dugal la ci benn kasali ilmi ba nga xamante ne fi mu toll nii jullit bi moom moo gën a tayal kuy tayal ci kaw suuf umam yëpp jullit yee ci gën a tayal tay ci xalaat ci xam-xam ci liggéey ci lépp boo gisee chinois yi ni ñuy liggéey boo gisee tubaab yi ni ñuy liggéey jullit yi mënuñoo liggéey xaaj bi te yu mel nii moom moo la ci dugal wan na la yow sa lépp baax na sa fayel bi sa page yëpp weex nañ amoo dara looy tiit maadaama saa yoo jullee di nga def 33 tasbih yow garanti nañ la aljana bu ko defee demal nga fen demal nga njaaloo demal nga sàcc demal nga corrompre nga corruption nga rey nit demal nga def lu nekk waaye boo jullee defal 33 tasbih garanti nañ la aljana yu mel noonu ñi la créé yow jullit bi ci tarxiib ak tarxiib bokk na ci li tax l'islam tey dugg ci taxaddiyaat yi mu dugg jullit bi mënta avancer yan jullit bi mënta avancer hissiyan aw maanawiyan ndax dañ koo tënk ci ne rek digganteem ak dundam mooy mu dee dugg aljanna mais yàlla objectif am ëpp na loolu ndax biñ lay wax ne àllaaxira dina taxaw ba léegi maam dee na fi doom màgget fi sët juddu fi ba léegi taxawagut léegi ñoom chrétiens yooyu nga xamante ne tey ñoom ñooy taxaddi sa diine ji ñi ngi taxaw pour xaar la ci réponse bi nga mën a indi ci loolu ndax da ngay dund pour dee ñu suul la wala ndax da ngay dund pour jëriñ ñi nga xamante ne ñooy ñëw sa ginnaaw xadis bi ma jàng sànq alxalqu kulluhum iyaalullah wa ahabum ilallah anfaahum li iyaali mooy la ngay liggéey bàyyi ko sa ginnaaw ñi ñëw jëriñoo ko jiilan ba ada jiilin wa ubrizu lil jiilil jadidi misaala comme ni ko benn sëriñ ci senegal waxe woon ne tukki yi muy tukkeeg effort bi muy def daf koy pour jox jiilil jadid bi misaal bu rafet waaye malheureusement raayaat alxuraan yi nga xamante ne tëdd bëgguñ ko tax na tey jullit bi wàcc na mission boobu kon ñaari raaya laa mooy al ibtilaaw ak al adlu ñetteel bi mooy al imaan gëm kon gis nga ne gëm yàlla sax ci troisième position lay doog a ñëwee première position bi yàlla daf laa bind pour nattu la deuxième bi daf laa bind pour nga am maandute même boo dëkkee ak ñuy jaamu ay wasan troisième bi daf laa bind pour nga doog kaa gëm léegi nag imaan boobu noonu mooy lan yow jullit bi moom nga war a laaj sa bopp ndax imaan boobu moom mooy imaan yi ñu la bindal ci yenn xadiis yi wala imaan boobu moom mooy imaan bi la alxuraan définiral alxuraan ni mu définiré imaan képp ku jàng xam nga ko jullit moom moo war a gën a suufe ñépp ci tawaado waaye moom moo war a gën a kawe ñépp ci himmaam ak ci jëriñ nit ñi ba nga xamante ne yonentu yi nga xamante ne ñoo ëpp ñépp imaan ñi ci gën ci ñoom muy ulul azmi mina rusuli boo xoolee ku mel ni yonentu yàlla isa néeg bu fanaan sax amul ko woon waaye saa yu nekk dafa daan liggéey pour luy jëriñ communauté am gëm yàlla am foofu la tolloon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu mu wax ci alquran wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu mooy début imaan bi nga xamante ne yow jullit bi moom nga war a am te moom nga war a ngàndaayoo pour xam ne am na feneen foo war a dem yàlla ngi lay wax ci alxuraan ne ba léegi ci aay yi ma indiwoon sànq lay laysu a min ahlil kitaabi ummatan qaa'ima yatluuna aaya yatluuna aayatillaahi yatluuna aayatillaahi aana al-layli wa yes yasjuduun nee na yemuñu ci ahlul kitaab muy yahuud yeeg nasaraan yi am na ci ñu jub ñoo xam ne dañuy jàng kawteefu yàlla yi te dañuy sujjóot maanaam dañuy toroxlul yàlla comparé ko ak xadis ba nga indi woon sànq wala xadis bi ma la wax sànq ne moom lañ ñu indil ba pare nañu wér na que ne la yahud yëpp safara la safara lañ jëm te yàlla nee na la yemuñu am na ci ñoo xam ne ñu baax lañ ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi tadabbur yàlla daal di ci teg ne yuminuuna billaahi wal yawmil axir gëm nañ yàlla gëm bis penc ba pare ñu ne la ñoom ñëpp safara lañ jëm ak yu ñu xaaj kon bokk na ci sa imaan yow jullit bi nga gëm ne sa prochain bi nga xamante ne yàlla bind na ko ak lépp lu mënti jaamu gënoo ko lu dul bu fekkee danga kaa gën a sellal da kaa gën a ragal yàlla waaye gënoo ko ngir benn badge boo takk ne yow jullit nga wala yow suuf yi nga wala yow nàngam nga ba xataa ci yahud bi parce que xëy na yahud bi moo lay gën a ragal yàlla allahu alam donc war nañoo moytu loolu ñun jullit ñi bu fekkee bëgg nañoo avancer tey ci suñ jamono yi ay ayaat yu bari laa ci génne waaye waxtu wi du ko mat ñeenteel raaya bi nga xamante ne yàlla moo tax mu bind doomi aadama te moom mooy raayaat ci moom mooy raaya ci raayaatu alquran yi nga xamante ne nii dañ ko ihmal mooy al ibaada donc gis nga ne moom ci dernière position lay ñëw première bi ibtilaaw adlu imaan ibaada dooga ñëw waaye jël nañ ibaada boobu noonu tegal la ko ci kaw jël yële yëpp ihmaal ko boo duggee ci téere yi di nga gis ay téere kitaabul kitaabul ibada kitaabu sujudi kitaabu salaat yi ba mu fees waaye yële ne la nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon te moom mooy objectif bi tax ñu bind la sax d'abord balaa ngay mën a jaamu yàlla ihmaal nañ ko loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo nañu indi suñuy kawaaris ba tey jii jullit bi mënta avancé te loolu kat bul am sikki ne dafa commencé depuis ci asrul awwal jamono saxaaba yi jàpp ñu ci suuf ba suñ jon yàllay tey parce que jamono ba nga xamante ne saxaaba yi ñu ngi dund daf ci am ñoo xamante ne nii ci wasan ya lañ nekkoon am ñoo xamante ne nii nekkuñ woon ci wasan am ñoo xamante ne nag ay ahlul kitaab lañ woon ahlul kitaab yooyu tuub am na ci ñoo xamante ne dañoo ñëw sellal biñ tuubee am ci ñoo xamante ne biñ tuubee asar israil yi boobu noonu daf leen a topp te dafa royaat ci suñu turaas ñun jullit ñi te boroom xam-xam yu bari lil asafi shadid taxawuñ pour seetantal ko lii ci jaanibu alxuraan la mooy kawaaris yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ihmaal bi ñu ihmaal alxuraan ak xaayaat yu mag yi ashahaada lillah xaaya la ci xaayaatu alxuraan yi di lekk yeggut ci maqaama ñeent yére waaye doo ko gis ci benn téere xadis kitaabu fadlu shahaada lillah doo ko gis ngëneelu shahaada lillah doo ko gis baabu shahaada lillah doo ko gis waaye di nga gis baabu same wa taa ñu ne la wa in jalada zahrak wa axasa maalak toppal rek nga muñ bu ñëwee nag ci jaanibu xadis bokk na ci li ñu indil suñu kawaaris tey ak taxaddiyaat yi nga xamante ne moom la ñuy dund te ñu war ko relever défi boobu noonu ñun jiilil jadid bi ñoo ko war a def première bi mooy weddi ay xadis bi mu jarali shubuhaat maanaam jiil bu njëkk bi nga xamante ne ñoom ñoo doon tëdd tëdduwin xadiis yi daf ci am ay xaaj am ñoo xamante ne nii dañ doon def xaalisan li wajhillahi alkarim am ñoo xamante ne nii dañoo nekkoon nag sulta bi ñooñu noonu dañoo préparé bépp xadis boo xamante ne arrangé wul leen ñu weddi ko bi mu jarali shubahat indil la ay shubah yoo xamante ne nii la asaas laa min asiha waaye nag pour ñu weddee ko xadis bii wér ba nga xamante ne duñ ko mën a jëfee loolu bokk na ci ahadis yu bëri yoo xamante ne mu'tazila yi dañ koy riwaaya wala yeneen ci firaq islam yi dañ koy riwaaya ñu indi la ay subaha yu ñu la tegal ba hadis yooyu nga koy nga koy xeeb nga koy nga koy xeeb wala nga di ko siixlu ñu indi la ay téere yu ñu la bindal nee la lii mooy kutubu sitta wala lii mooy kutubu tisaa tegal la ko te téere yooyu ñu la bindal malheureusement léegi nga xamante ne mooy njëriñ ba nga mën a amee ci hadis yi doo ko am ci téere yi nii di lekk téere yi am na ay njëriñ ci nekk lislaam xam nañ ne yàlla daf ñoo digal yonent bi digal ñu waxuma la téere mu'tazila wala téere euh, ibaadiya wala téere zaydiya waaye bal wa xatta ahlul kitaab war nañoo mën a jëlee ci ñun ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñuy wax ci xadiisu muslim xadiisu buxaari xadiis boo xam ne daanaka mutawaatir la fi muy wax naan wa xaddisu an bani israila wala xaraj wa man kazaba alayhi mutaamidan falyatabawwa maqaadahu min annaar léegi nag naka ngay taxdiisee ci banu israil mooy nga dem jéem a gëstu seen xam-xam seen xam-xam yooyu ñu am am na ay churut yoo koy jëlee boroom xam-xam yi tegal nañ la ko mooy lépp loo xamante ne alxuraan na saxut ko wala lépp loo xamante ne nii duut luy indi sharia bu bees waaye bu dee xam-xam bu lay jëriñ la ci sa dund jël ko nga jëriñ nga jëfandikoo ko waaye déedéet nee nañ la israiliyaat israiliyaat sànnil te israili yooyu ñuy wax tey ñoom ñoo yore àdduna bi ndax kon boo collaboré woon ak ñoom am esprit d'ouverture boobu noonu mën a jëlee ci ñoom ba pare mën leen a jox yow tey di nga taxaw maqaama bi ñu taxaw waaye tëju bi nga tëju ci sa côté yow jullit bi ba pare ñu tegal la ay subuhaat yu ñu la weddi lay lu wér lale moom moo la indil problème bi lii benn bu nekk mën naa cee joxe ay mm, am si la yu bëri waaye waxtu du ñu xaar ñaareel bi mooy ay ahadis yoo xamante ne nii ñoom dañuy itiraaf si xam waaye dañuy weddi maanaa bi nga xamante ne moom lay joxe zahiran yonent bi dina wax xadis bu ñu xoolee xool xam ne xadis bi mënuñ ci dara ñu ne waa léegi xadis bi wér na waaye maanaa bi joxewul maanaa boobu maanaa bi ngeen bëgg a joxe nangam maanaa bi ngeen bëgg a joxe nangam daal di jël maanaa bi tawil ko beneen tawil yóbbu ko feneen bu ko defee yow suufi bi nga ñëw di ko firee nii moom salafi bu ñëw di ko firee nii chia bi ñëw di ko firee nii ngeen daal di wuute bu ko defee nag xuloo daal di judd seen biir loolu bokk na ci li tax tey jullit ñi ñoom ñëpp ñi jaxase leen ba kenn ku nekk di inshiraal ci moromam rek bañ a inshiraal ci adu mushtarak bi nga xamante ne moom lañ am te loolu noonu dafa commencé depuis ci turaas bu njëkk bi ndax buñ nangu woon ne xadis bi wér na rek ñi bàyyi noonu kenn ku nekk du tënku ci xadis boobu noonu waaye bañ gi ñu bañ ne maanaa bii la xadis bi bëgg a joxe ak aaya yi nga xamante ne yàlla wax na ko ñi bañ a jël bi xamante ne moom la du joxe moo tax yàlla ci alxuraan di wax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wala di ñu nettal ne yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dina def shakwa wa qaala rasulu yaa rabbi inna qawmi taxasu hada alqurana mahjura dañoo hijra alquran te boo hijra alquran xadiis yi min baabi awla parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam in yattabiu illa ma yuha ilay liñ wàccee ci moom rek lay topp donc du wax benn xadis bu wuuteeg alxuraan du digle dara lu wuuteeg alxuraan fépp foo gis alxuraan di la digal nangam nga gis xadis di la ko tere bu yeboo nga topp alxuraan bàyyi xadis ba moom moo gën a wóor ñetteeli bi mooy ñi indi ay aara yoo xamante ne nii mu dadda ci xadis bi nga xamante ne moom nga indi wala aaya bi nga xamante ne moom nga indi boo indee aaya wala nga indi xadis ñi xam ne aaya bi mënuñ koo tawil xadis bi mënuñ koo tawil ba pare mënuñoo dàq si xam dañuy indi waxu benn borom xam-xam ne la borom xam-xam sàngam nii la ko firi borom xam-xam sàngam nii la ko firi bu ko defee ñoom ñu tënk ci waxu borom xam-xam yooyu sous prétexte que ne salaf la ñuy topp léegi daal di bàyyi ma dulul yónent daal di bàyyi maanaawu bi yónent bi bëgg a joxe ak maanaa bi yàlla bëgg a joxe topp seen salaf yàlla nañu yàlla musal ci ñi nga xamante ne ni yàlla wax na ci ñoom ne seeni njiit yi danañ leen di jiital yóbbu leen safara ndax yu mel nii bokk na ci koy waral yónent bi joxe maanaa yàlla joxe maanaa nga bàyyi ko fa topp ibnu xasmin wala topp ibnu fulaan wala ibnu fulaan kon loolu moom mooy ñetteelu point bi nga xamante ne nii bokk na ci lu ñu jugal suñu kawaaris ci wàllu xadis ak ci wàllu turaas ñeenteel bi mooy bu xadis ñëwee ñi xam ne xadis bii nii buñ ko sànnee ci zaahir bi bañ koo jëfee nit ñi danañ leen ci yedd waaye dañuy indi ay jëf yoo xamante ne nii dafay dëddu ak xadis bi ci zaahir par exemple ma joxe ci exemple ci biir rek yonent bi alayhi salaatu salaam toog na benn jour ci jumaa ji daal di wax ne yéen ñi toog fii ci sama kanam ay naafeqan ci képp ku ma tudd na jóg daal dina jugal diw jugal diw jugal diw ba tudd 36 personnes ñoom ñëpp ñu jóg mu ne leen ñëpp ay naafeq ngeen waaye lil asafi shadid boo ñëwee ci suñu turaas bi danga gis ne ñooñu noonu dañoo nëbbu seen tur waxuñ la ne Samba Ndiaye la ak Demba Diop déedéet dañ ne la fulaan fulaan léegi fulaan fulaan boobu noonu ba ilaa yawmi diin daa iman wa abadan bëgguñ nga xam leen parce que bëgg nañ boo leen tuddee wax radiyallahu anhu mais pourtant ñu bàyyi woon yonent bi mu joxe message am ni mu ko waroon a joxe nga xam seen boobaa bépp xadis bu ñu ne la Samba Ndiaye mii moo ko riwaay wala Demba Diop di nga xam ne kii ci naafeq yi la bokkoon nga daal di daw xadis boobu noonu waaye tafliil nañ seen tur yi loolu bokk na ci li nga xamante ne moo ñu indil problème te loolu la Occident yi du def maanaam ñun dañoo am complexe ci maarifa xam-xam dañ ci am complexe soit pour ragal euh, jumhur bi wala pour ragal sulta bi wala pour am benn objectif bu ñu bëgg a ba tax léegi léeg yonentu dafay joxe message bu clair ñu nëbb ko yonentu taxaw na jour ne kan ci yéen moom mooy nangu jël sama wasiya nekk sama xalifa sama ginnaaw nekk sama nangam nekk sama nangam waaye bi ñu ñëwee ci téere yi li yonentu lim noonu yëpp dañ koo nëbb ne yonentu dafa wax ne rek man min kum yuridu an yakuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza nii lañ ko bindee ci téere kaza ndax yonentu na taxaw di wax di kaza wa kaza kon nëbbal nañ la risaala boobu nga xam ne moom la ba yonentu bëggoon a jox pour enfin buñ jëfee lu uuteeg moom bul xam ne ñoom uute nañook ak yonentu bi c'est stratégiquement préparé te daf ñoo topp euh, juróomeel bi mooy jël ay ahadis yoo xamante ne nii amuñ benn cosaan ci wér ñi fent leen pour contrer ay xadis yu wér da ngay gis xadis yonent bu wér gagar ñi fent benn xadis mawdua benn xadis mawdu fexe kaa wéral pour mën a contrer xadis boobu bële te boo xoolee seen maanaa yi dañuy mel ni yàlla ak yàlli léegi bu ko defee yow bi xaaj nañ sa xel ñaar doo xam ban nga ciy topp da ngay gis alquran di la digal xuriyatul itiqaad am liberté ci gëm lu la soob ñu indi la xadis ne la déedéet yonent bi nee na képp ku changé diineem nanga ko rey doo xam ban nga ciy topp ba pare ñu ne la xadis boobu wér na te yàlla nee na la gëmal la neex waaye nag moom moo lay fay ci aljanna wala ci safara yow gëmal jox na la ñu ne la déedéet yonentu nee na képp ku gëmul lim gëm nañ ko rey léegi yow ixtiraam bi ngay am ci yonentu bi ak xëyba boobu ngay am ci borom xam-xam yi dina tax dinga daw bañ a di nga bañ a daw seen wax jële waaye nag xamoo ne jamono bi ngay bañ a daw seen wax ji alxuraan ngay daw wa qaala rasul ya rabbi inna qawmi wax hada alqurana mahjura tàbbi nga ci te xamoo ko kon loolu bokk na ci léeg-léeg aussi ay nit ñoo xamante ne nii amuñ benn ngëneel bu wér ju bu ci yonent bi yonent bi daf leen a zamm shahidallah yonent bi daf leen a zamm yonent bi daf leen a jam waaye bu ñu ñëwee fent ay ahadis mawdua ci seeni ngëneel pour bëgg nit kooku noonu nga continuer di taral ci moom te xëy na nit kooku noonu sos na ci lislaam loo xamante ne tey bokk na ci kawaaris yi nga xamante ne moom la ñuy dund pour pourtant bu ñu bàyyi woon yonent ci risaala bi mu bëggoon a joxe ci jam nit kooku ba ñëpp xam ne kii majruux la min indi nabi sallallahu alayhi wa sallam danañ daw nit kooku boobaa danañ daw charo bi nga xamante ne moom lay indi mais bi biñ la ko sangalee ba mu set te pourtant yonoon daf koo tilimal ba mu tilim nga daal di nag jaxase pompiteer bu baax de pompiteer bu bon bi yow jullit bi. Euh, bokk na ci loolu ba léegi ay ahadis suñu fent par exemple nañ bañ am complexe ñun ci maarifa xadisu asxaabi kan nujum bi ayihim iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi comme ayib diw lañ mel képp koo ci topp jug nga. xam nga yonentu mënta wax wax ju mel nii waaye ñoom ñoo ko fent ngir lan ngir wan la ne lépp lu jugee ci ñoom ñu ne la ci saxaaba lu jugee jëlal mais pourtant yow doomi aadama bi yàlla bi mu la bindee wan na la ne mujtama bi ngay dund ak jamono bi ngay dund yonent bi moom tamit mujtama boobu mu doon dund bépp sifa buy am ci suñ jamono yi amoon na foofu nifaaq amoon na fa kufru amoon na fa def lu bon amoon na fa mooy yàlla amoon na fa topp yàlla amoon na waaye ñëw ne la ñun ñun ñëpp ñu baax lañ léegi boo ci gisee kuy naan sàngara ñu ne la bul ko wax parce que asxaab yi kan nujum mooy ne demal nga jaay nga naan sàngara wala nga jaay sàngara te riwaaye nañ ci téere xadis yi Masamba ak ba naan nañ sàngara ñëw yónentu gëtan leen waaye kooku ñu la wax ne huwa huwa kan nujum léegi da nga koy topp ci naan sàngara soosu noonu kon tey bu ñu gisee ay jullit yu naan sàngara bu ñu jaaxal parce que dañ ñoo wan ne amut problème bàkkaar bu ndaw la yàlla mën na la kaa jéggal ndax saxaaba yi sax def nañ ko te ay biddiw mais bu ñu la tiitaloon wal na ne carrément kii saxaaba yonentu la def na nangam te yàlla dina ko ci def nangam parce que yàlla du mu jaama la boobaa yow jullit bi di ko daw diw sàcc na ñu ne la indi lañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent dagg na loxoom waaye ñu ne la déedéet topp ko nga suturaal ko wax ne huwa kan nujum inna anzalna ilayka kitab bil haqqi li tahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasiman ci benn waaye bu ñuy wax Tu'matu ibn Ubayy la wàcc dafa am lu mu sàccoon boobu dafa nekkoon jullit am gars yi nuñ falsifié histoire bi ba yonentu bëggoon na àtte pour moom yàlla daal di wàcce aaya ne ko bul ànd ak wurujkat yi bu leen jàppale léegi kooku noonu ne nañ la huwa mu nujum wala huwa kan najm nooy def et pourtant buñ la wonoon ne loolu mu def njuumte la loolu jëfi nit ku bon la di ko daw yow julli bi pour topp jëfi nit ñu baax ña parce que alhamdulilahi rabbil alamin Seydina Babacar mosuñu riwaaye jëf yu mel noonu ci moom bu ñu waxee ne Seydina Babacar huwa kan najm alal ayni wa ra's mais nga ne ñoom ñëpp hum kan nujum foofu la problème bi duggee ak xadis euh, yi nga xamante ne fent nañ ko iza zukira ashaabi fa amsiku buñ tuddee samay saxaaba na ngeen noppi fii ban message lañ la bëgg a jox mooy bul ñemee wax yow jullit bi kenn ci saxaaba yi am ñu ci doon riwaaye ay israiliyaat yoo xamante ne ni tëj sim ak tashbih daf ciy feeñ wala yoo xamante ne irhab daf ciy feeñ ba tax tey nga gis ay jullit yoo xamante ne dañuy mën a melal yàlla ba mel ni benn statue bu toog ci kaw arash te pourtant ci ay saxaaba lañ ko jëlee ñu riwaaye ko sanadan wa matnan bul jël xadis boo xamante ne dañ ne la ci ab saxaaba lañ ko jëlee ñu ne yonent bi tëralal nañ ko juróom benn téeméer nit ko léegi ñi sangal la kooku ba mu set la isa zukira fa amsiku isa zukira asxaabi fa amsiku bu ñu leen tuddee noppi leen maanaam ñoom lépp lu wax lu baax la lépp lu ñu def lu baax la loolu ñu jullit yi bu ñu ko gëmee dañoo wuruj suñu bopp dañoo wuruj suñu génération maanaam li yamiiz allahu alxabiisa min at-tayyib li yàlla wax ci alxuraan dafa am ci jamono ju nekk waaye malheureusement suñ turaas bi dafa ihmal loolu noonu surtout ci astre bu njëkk bi bokk na ci yu mel noonu mooy sos ay xawaa xawaayit yoo xamante ne ni ñoom ñoo ko fental seen bopp pour di mën a nangu lu leen neex di mën a dàq lu leen neex xadis bu leen arrangé ñu jël ko xadis bu leen arrangé wul ñu dàq ko ci xaayida yooyu noonu bokk na ci xawaayit yooyu ñu sos wal imsaaku amma shajara baynahum maanaam lépp lu ma sa xew ci saxaaba yi rek nga xam ne yow jullit bi mën nga cee jëlee ibra ñu ne la nopp ci maanaam bul ko jàng sax am na ay téere yu ko bind bul ko jàng sax bul ko xam fàtteel te pourtant yàlla nettali na li xew diggante banu Israël li xew diggante yonentu yàlla Yuusuf ak ay mbokkam pour lan pour nga jëlee ci ibra yonent bi sa alayhi wasallam ci boppam yàlla wax ko ne ko dama lay nettali xistaay yonent yi la jiitu woon pour dëgëral sa xol ci gëm yàlla léegi pourquoi ñun du ñu nettali li xewoon ci diggante ñi ñu jiitu woon ci ay saxaaba wala ñi ñuy tuddee saxaaba pour ñu mën a dëgëral suñu xol ci gëm yàlla ba pare mën a weddiloo suñu xol leneen lu nekk gëm yàlla waaye ñu ne ñu wal imsaaku te wal imsaaku boobu mës ta génne ci làmmiñu yonentu ñoom ñoo ko fental seen bopp juróom minute bon euh, temps bi gàtt na trop wax dëgg yàlla euh, liñ bëgg a wax yëpp mënuñ kaa wax ndax lii yëpp tamhiid la rek bu ma pare woon fii nii xawaayid yi fukki xawaayida ak benn la boo ci paree nag da ngay dugg ñu indil la rendi bi ngeen di gis tey Daesh di ko def bomb yi ngeen di gis boo ko haram di ko taal fan la jógee te mu ngi ci suñu téere léegi yow jullit bi dañoo soxla boo demee sa kër nga raxasu ci lu mel noonu ba mu set bu ko defee nag boo ci raxasoo sa morom raxasu ci mujtama bi raxasu ci Sénégal raxasu ci boobaa Sénégal mucc Nigéria bu defee noonu France def noonu Amérique def noonu boobaa l'islam nekk ci jàmm encore mais malheureusement temps bi du ko may kon bàyyil ñu tënk xawaayid yi rek ñu wax ko nit ñi ñu xam ko bu ko defee incha allah du ñàkk bés ci bés yi dinañ ko leeral bokk na ci xaayida yooyu noonu mooy septième bi bi nga xamante ne nii teg nañ ko mooy irhab ak tarxib ak tarhib ahadis yi nga xamante ne ni dañ la koo fental wala buur yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon tarxib ak tarhib bi ñu daan doxalee képp ku ànd ak ñoom ñi fal la sa tur ñi ekkati ko say xadis ñu koy dégg képp ku ànd ak ñoom ñu suul la bokk na ci am sila yi ñu ci mën a joxe ahadisu ahlu badar li nga xamante ne Serigne Touba wéy na leen ay yoon yoon fukki juróom eh, ñett téeméeri nit ak fukk ñett yooyu noonu seen xadis yi boo ko ñoom ñëpp am na yenn ci ay saxaaba benn benn yu leen ëpp xadis ñoom ñëpp par exemple ahlu badrin ñoom ñëpp lu mu dee dee dund nañoo yónnentu fukki at ci lislaam maanaam ñi ñi ñi shahidu ci badar wala ñi dund ba ginnaaw yónnentu sayidna abu hurayrata radiallahu anhu ñetti at la dund ak yónnentu bi te ñetti at yooyu noonu benn at la ci toog ak yónnentu ndax ñaari at yi dafa demoon Bahrayn moom ibnul Hadramiya waaye riwaaye nañ ci moom juróomi junnee xadis boo boolantee xadisu ahlu badar matul juróomi junne léegi fan lañ yóbbu seen xadis ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ak yonent bi ci commencement ba am raayaat yi nga xamante ne yonent bi mu ngi ko doon inculqué ci ñoom ak ñi nekkoon ak yonent bi ci màkk nga xam ne jamono jooju julli amut or amut dara amut laa ilaha illa moo amoon yonent bi du dund ñoom ci loolu di leen jàngal maani yooyu noonu ba mu incarné wu ci seen xol yi ana seeni xadis yi ñu nëbb ko léegi képp ku ànd ak sulta bi dañuy ekkati say xadis loolu ci asru taabii ak atbaaru taabii yi benn bu ma ci jël mën naa cee joxe ay am si yoo xam ne mën nañ cee bind téere képp ku àndut ak ñoom suwaat ñi rey la buñ la mënta rey na ñi posone la buñ la mënta posone mënuñ laa rey ñi fexe suul sa tur ba kenn du riwaaye ci yow kenn du dégg say xadis exemple sayidna xasan ibnu ali radiallahu anhu doomi sayidna ali sëtu yonent bi ñeenti xadis lañ riwaaye ci moom ci kutubu sitta am na nañu wax juróom-benn mboolem téere xadis yi ahlu sunna yi juróom-benn xadis lañ riwaaye ci moom te lum dee dee dund naag maamam juróom-ñaari at te dund na ginnaaw maamam fanweeri at ana xadisam nëbbu nañ ko te ñooñu noonu nga xamante ne ci ñoom danañ mën a jëlee ay njëriñ ci xam-xam yoo xamante ne nii duñ ko am ci ay tarxib ak tarxib ay nii ngay solo nii ngay jullee da ngay xabdu wala da ngay sadlu yooyu ñu ishxaal jullit bi ci moom nga xamante ne tey moom moo ñu dugal ñiy concentré wu ci ay yu ndaw di bàyyi di bàyyi ay maani yu rëy yow jullit bi ñu ngi la booy tahiya da ngay tàllal sa baaraam wala da koy kocc koccal da booy booy julli dangay ngay sa tànk wala danga koy jegeel ci yu ndaw yooyu noonu nga xamante ne raaya julli ci alquran mooy alxushuu xushuu boobu noonu doo xool benn téere fiq yaakaar na ay fuqaha ñu ngi fi duñ ma bàyyi ma wax lu amut doo xool benn téere fiq ñu dugal ko ci faraidu salaat yi te loolu mooy li tax julli am xushuu ana xushuu boobu noonu xamoo sax lan mooy xushuu ci julli waaye boolewuñ ko sax ci faraidu salaat yi lan la ñuy boole ci faraidu salaat yi ak sunanu salaat yi yeneen affaire la nii ngay sëggee ni ngay rokoowee donc futilité yooyu noonu ñi gëmloo jullit bi ak yu simple yu ndaw yooyu ñi koy inchiral bokk na ci kawaaris yi nga xamante ne l'islam mu ngi koy fees tey ak taxadiyaat yi nga xamante ne jullit bi war naa jéem a fexe surmonter obstacle boobu noonu euh, bokk na ci yooyu noonu ñeen euh, juróom-ñetteeli point bi mooy jarxu wa taadil maanaam bépp raaw yi bu leen arrangé wu ñu jam ko ne kii chii la rafidi la kii kazaab la kii kenn du riwaay xadisam matrukul xadis bépp raawi bu leen arrangé ñi taw séq exemple lii mënuma kaa ñàkk wax même bu fekkee benn minute moo ci des am na benn raawi bu tudd abu mixnaf luutul nu yaxya bokk na ci mu aral xune yi gën a rëy ci lislaam waaye jarxu nañ ko jarxu bu bon boo xamante ne tout simplement parce que moom du nëbbu dara bu yonentu ne un def naan un la bu yonentu ne deux def naan deux la du wax na raawi bu tudd waaqid nañ ko jarxu yu yoo xamante ne te waaqid yi ci lislaam néew na muarix bu mel ni moom parce que muarix maydaani la woon ñu mel ni ñoom Balaazuri ñooñu ñooñu ñëpp nëbbu nañ seen i ah, nëbbu nañ seen tur jarku nañ leen takzib nañ leen wax nañ ne ay fenkat lañ bu ñu waaye seen xadis ngir a jël ci maani yooyu yoo xamante ne peese dara ci balance su taxqiq ñu mel ni ñoom Imran ibnu Hittaana nga xamante ne ni sëriñ bi téye kurusam nii noonu la daan téye kurusam bu jullee fajar juróom-ñaar fukki yoon lay laanu Seydina Ali ginnaaw fajar juróom-ñaar fukki yoon ginnaaw waaye tawsiq nañ ko jël nañ ay xadisam mu ngi ci Buxaari mu ci muslim mu ci téere xadis astafurlah muslim riwaayé wul xadisam parce que daf ne ku mel ni du ma mën a riwaayé xadisam na xam-xam leen tegee ci misaan taxqiq waaye ekkati nañ leen bañ kawe ne dañoo diis ci misaan ñu suufee lan bañ suufee kenn déggatu leen loolu bokk na ci xawaay yi nga na ci xawaay aussi sos ay ahdaas taarix yoo xamante ne ay fen la amut ba pare ak ay shaxsiyaat taarixiya yoo xamante ne nii amuñ shaxsiyaat xayaaliya xayaal shaxsiyaat xayaaliya yooyu noonu bokk na ci ku mel ni alqaqa ibnu amr at-tamimi def nañ sax musalsalam waaye amut boo ko tegee ci misaan taxqiq shaxsiyam amut bokk na ci shaxsiya abdullah ibnu saba amut boo ko tegee ci misaan taxqiq amut parce que benn raaw yi moo ko riwaaya mooy Euh, Sayf ibn Omar at-Tamimi te kooku moom kazaab la woon zindiq la woon waaye pourtant ekkati nañ ko jël nañ ñu sax si jaad yooyu ekkati nañ ba nga xamante nii fi mu toll nii lislaam ñoom rek ngay dégg wax dëgg yàlla euh, jawful faraa la euh, in uridu illa lislaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah buñ sañoon cinq heures de temps la ñuy am ñi gën a leeral ndax wax dëgg yàlla li ñu waroon na wax boo ko xaajee fukk benn xaaj bi waxaguñ ko ci jullit yi dañoo war a jàng nit ñi dañoo war a xam génération bi dañoo war a jóg bi ñun ñoo ko war a porter combat bi Serigne Touba defi woon Gabon defi woon ko Mauritanie combat bi Baye Niass defi woon ba Chine bay wax naan li honkooka min bankooka jaa qadimukum yuwaali laka al wa huwa atala bi faariqi sabrin qad ataamu tatafilan fa haqiqa jaa abdin raaka ma ala fa fii kulli xayin xat xabatta bi nicmatin ila kulli xayin xat bazarta manaala lim ko jeexalee mooy alawtul bihaara zaaxiraati wa innani alawtul qura wal mudna balahal jibaala aruumu ridal baari li nusrati diinihi wa ubrisu mm-hmm. lil jiilil jadidi misaala lil jiilil jadidi misaala boobu ak bayti Sëriñ Tuubaa ba mu toxal dugal ko ci ruuxul adab mooy fa laysa yuksabu sawaadul jismi balaa datal fataa wa sual fahmi mm-hmm. nga xam ne bil maanaa la ko toxalee mm-hmm. loolu ñun dañ ko war a jël xam ne fi mu toll ni Sénégal ñun ñoo ko war a yor l'islam ñun ñoo ko war a yor nañ ko jàng nañ dañ ci complexe fii Amérique toll tey julli di ñoo fara toll maa ngi jégalu bu baax baax walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil maa ughliqa sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا الله تفصل وسلم على النبي اللطيف وعلى آله صلاة تلطف بها لنا في سائر تقلباتنا ومسوانا وتلطف لأجسامنا وقلوبنا وخواطرنا وحالنا ومآلنا وأهلنا وزرياتنا ومحبنا وأصحابنا وأنصارنا ومريدنا وتلامذتنا لطفا خاصا عاما شاملا دائما أبدا سرمدا إلى يوم الدين إلى مستقرنا في أعلى عليين مأوى المقربين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين maa ngi gërëm mbokk yi wax dëgg yàlla ñi ma àndat ak ñi ñu dalal ñëpp euh, ànd naag waa ay AIS sëñ maam Cheikh Mbacke sëñ Abdou Aziz Touré euh, sëñ Cissé Cissé Cissé bëgg lekk bi ak euh, maam si sëñ Moutala Rufa yi sëñ Cheikh la Talib ak ay Aydara Diop wax dëgg yàlla yéen ñi ñu dalal aussi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla bii bu mu nekk suñu dernier jotaay ba liñ bëgg a leeral incha allah mu leer ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax bu fekkee leer na ci seen dégg-dégg nii la boo xam ne yàlla moo leen ko defal tawfiq bu fekkee lëndëm na aussi ci man rek ak ci seytaane ak ci ñàkk jàng ñu ngi jéggalu bu euh, jërëjëf sëriñ Cheikh Baye euh, lay sant baax di la gërëm ci thème bu am solo bi nga xam ne andi nga ko tey ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan suñu borom mu yokk sa xam-xam ba fi nga bëgg a àgg ci liggéeyal lislaam liggéeyal ko ci wàllu soufisme ak diine ji yàlla suñu borom defal la ko xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek euh, jox sëriñ maam Cheikh Mbacke lu toll ci juróom ba juróom benn minute rek ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne sëriñ bi doon na ko def mu def ci taxaw ab seetlu kon sëriñ maam seex bisimilah. bisimilahi rahmaani rahiim alhamdulilah mbokk yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nuyu di ziyaare ñëpp ay di jël nuyu ak ziyaare bi boroom dëkk bi muy sëriñ Abbas Mbakke yàlla fi yàgg te wér waaye di ko ziyaare ziyaare bi ñu ko teg ci loxo mu joxoon ñu xalif général de Mouride sëriñ Sidi Almuxtaar Mbakke yàlla na fi yàgg te wér dañuy njëkkanteeg bi dañu sant yàlla ci bi ñu yàlla dimbaliwaatee ren même bis bi yàlla baaxewaat ñëwaat fii ci pàkk bu laab bi di Daaru Muxti ngir ñëw ci jataay yu am solo yi nga xam ne mu assasatul Wafa mi ngi koy def daaw ngeen invité woon ñu waa AIS ñu ñëw ci bisu Laylatul Qadr defoon tem boo xam ne mooy addu'a silahul mu'min yàlla dimbali ñu bi ñëwee fii dañoo ñaanoon moo tax ab jullit daa di ñaan dañoo ñaanoon ne yàlla nu yàlla dimbili ñu teewaat fi ren ñu teew fi déwén boobu yàlla dimbali ñu teew fii ci même bis bi kon ñu ngi ñaanal yàlla sunu subhanahu wa ta'ala moom yàlla na yàlla may ñu teewaa fi at yu bare bare bare bare waaye fekk leen fi yéen yéen ñi nga xam ne yéen a organisé mbir mi ñi ngi ànd ci délégation nag ah sunu macha allah jàmbaar ji di wax mu sëriñ seex bay Niass al Kawlax yi def fi thème bu am solo al islam wa tahaddiyat gis ngeen ni mu ko traité di jàmbaar joo xam ne wax dëgg yàlla ñu ne moom ñoo ànd nekk ci liggéey bi mu ci jàpp bu baax a baax a baax yàlla dimbali tey ñu mën a ñëw teew fii loolu ñu ngi ko ci sant di gërëm di nuyu sëñ Babacar Cissé coordinateur jaamal daaw ñoo fi àndoon ñëw waaye sëriñ Abdoul Aziz Touré mi nga xam ne macha allah tabarakallah mi ngi ni taaral jotaay bi ànd ci biir délégation AIS ñu jógee Dakar ñun ñëpp waaye di nuyu suñ mbokk yu baax yi ñu fekk si muy suñ Mourtada Rafa yi ak sëñ Aïda ak sëñ Cheikh Sina Talib kon yéen waa as Muassasatu Wafa ñu ngi leen nuyu di ko jaare seen jëwriñ ji ki nga xam ne moo yor wàllu saqaafa bi sëriñ Ahmad Mbacké ak yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen nekk ci biir ñun nag li ñuy li ñuy commentaire bi ñuy def muy taaliq bu gàtt boo xam ne dañ koy def ci al islam wa tahaddiyaat yi sëriñ Cheikh Baye Niass def daanaka fi mu jeexal wax ji groupe boobu muy junju nga xam ne junj na leen te ñëpp xam nañ leen ñoo indi problème bi tey mën naa wax ne tahaddiyaat yi dund yëpp muy défi yi ñoom ñoo ñu ko imposé ñoo ko imposé monde islamique bi yàlla fàttali wa asbagha alaykum ni'amahu zahira wa batina kenn wérut na yàlla jox na musulman yi xéewal tey bi ci gën a rëy mooy pétrole waaye xéewal googu ñu yàlla suñu subhanahu wa jox ñoom dañ ko dévier dañ ko dévier jéemale ko ci seen ay xalaat yoo xam ne yu xat la xalaat yoo xam ne tey moo indi guute gi am tey ci àdduna bi tey moo ko indi te loolu borom xam ne dañ ko tuddee al ta'assub al fikri yi wala al yi wala dañ ko mën a tuddee al madhhab yi tey foofu la leen dugal ndax dañuy wax ne al ta'assub boo xam ne yatashaddad fa yara nafsahu ala haqqin wa anna al akhara ala batil maanaam taassub dafa garaaw moo tax yontu sens wax ne iyyakum al asabiyya moytu moytu leen par parloo man daa euh, laysa minna man daa ila asabiyya képp kuy woote jëm ci parloo bokkut ñun ndax xam ne par parloo ci wàllu gisin ak ci wàllu doxalin ak ba ci wàllu xeet rek day indi guuta day indi musiba day indi kaarisa ci àdduna bi tey guerre civile yi am yëpp ngeen ko ci àdduna bi par parloo la ci wàllu irq maanaam kon nag enseigné ci wàllu diine li mu indi tey gis ngeen ko tey mooy mislaam bépp dañoo taqalikoo te li muy indi mooy ni Serigne Cheikh Baye Niass waxee dañuy taxriif maanaam ahadis yi ayat alxuraan yi ngir jëmmale ko ci seen i seen i intérêt te loolu tey loolu moo am gis nga tey liñ tong-tongale jullit ñi tey muy kuréel boobu mooy ashirk ci bokkaale waaw shirk waaw ak bidaa moom lañ tong-tongale jullit ñi ci loolu lañ dévier musulman yi fañ waroon a jaar ba tey jii ñu indi coow lu rëy rëy rëy te pourtant shirk boobu ñu wax te mooy bokkaal yàlla xam nga bokkaal yàlla moom ñëpp xam nañ ne bokkaal yàlla képp ku koo def te tuuboo ko yàlla su ma subhanahu wa ta'ala du la ko jéggal amul benn jullit booy fekk mooy ashhadu anna muhammadan rasulullah bokkaal yàlla loolu moom yàlla du ko dimbali xeet yentu sallallahu alayhi wax ji yentu sallallahu bi mu waxoon ne moom la ragaloon ci ñun muy bokkaale bi ragaloon ñoom dañoo jël beneen bokkaale bi nga moo gën a garaaw ne bii lañ ragal ci musulman yi yentu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna axwafa ma axaafu aleykum ashirkul asghar li ma gën a ragal sama xeet bi sama ginnaaw mooy bokkaale bu ndaw boobu sax julli nii xamaguñ lan mooy bokkaale bu ndaw xamaguñ ko ndax bokkaale li ñu ci xamoon rek mooy wuutal yàlla ndenn mu ne ashirkul asghar bi ko yenn saa waxee xiila ya rasulullah ma ashirkul asghar lan mooy bokkaale bu ndaw boobu xamaguñ ko mu ne leen arriya mooy ngistal bokki na ngeen xool naar yi tey li def Trump mi nga tudd léegi seen Cheikh Baye Niass mu ñëw Arabie Saoudite barki démb milliards yi ñu ko jox ndax loolu ngir yàlla la jël xaalisu jullit ñi ay milliards de dollars jullit ñi xee maanaam dee ak xiif yatadawaru juan maanaam di dee ak xiif nga jël alal ju mel noonu ñi ma koo jox benn ab yéefar loolu gën a nekk reer dagal daam lu ko gën a nekk ngisal loolu mooy bokkaale bi yam sanc waxoon ne moom laa gën ragal sama xeet tey moom la Arabie Saoudite def bay na maa nag ñu ñëw ci ñun nag ñuy jaamu yàlla gëm yàlla di def ziyaaratul qubur di def tawassul di def tabarruk ñu ne yéen yéenay nekk ci ashirku ba nga xam ne moom moom lañu al akbar kon te yontu sens ne ma ragalu woon lool ndax yàlla dimbaliwu sama ginnaaw kenn du kenn kenn du jàmm sama sama xabru ñaan naa yàlla te yenn sens lu mu ñaan yàlla yàlla yàlla boo def sama xabru mu wesa ñu koy jàmm kon loolu yàlla subhanahu wa ta'ala may na ko léegi nag kon problème bi moo nekk taxaddi bi ñu am daal julli nii mooy taxaddi ak taassub al fikri yi moom la ñu am actuellement nii mooy dañuy wax ne min al xata il bayyin bokk na ci njuum la du leer nañ ñi mooy nga gis ne anal xaq laa yughaaru alayhi illa ant mooy nga gis ne dëgg moom yow rek yaa ci fiir yow rek yaa yaa yow rek yaay ki koy défendre yow rek yaay ki wax dëgg yow rek yaay ki nekk ci dëgg dañoo wax ne loolu njuumte bu nga a amut waliasubillah kon kon mbokk yi ñu ngi jeexal waxtaan daal di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf jërëjëf moom sëñ moom Seex <laughs> jërëjëf jazakallahu xayran jërëjëf waxtu bi moo ñu jot rek waaye ñu indi am na solo lool jërëjëf jazakallahu barakallahu jërëjëf